ragal yàlla keneen moom te yonent yàlla ko yónni ah yonent bi ne abubakar siddiq doo dem jot jaamu yàlla boo xam ne waxu dara lu may yàlla sama ko xalaat abubakar ñëw sangam ne ko yow yaa ñàkk bopp kii sab jaam la di sa alal su dee yow yaay perte te mën nga ko jaay am ci xaalis am ci urus yaaram nag foo leen tudd loolu jeex na mu ne ko kii ku bon kay lu ma nit fay ci moom ma jaay ko ko mu ne ko loo ma ko jaayee danaa ko jënd mu ne ko indi ñaar téeméeri libi door wurus Abubakar daal di compte ñaar téeméeri libi fay ko daal di xewi Bilaal ne ko jënd naa la goreel naa la ci yàlla demal wax ahadun ahad fu la neex wax ko kenn dootu la buggal yonent bi ci boppam ñu di ko lor di lor waa këram di ko fitnaal surtout baay bi nga xam ne moo ko waroon a muy Abu Lahab ak jabar mu ji bon ja moom moo daan def su yonent julli ji fajar mu wut ay déggi sam ju ko teg ci kaw yoonu jàkk ji ndax yonent yi daanu ci Abu Jahl itam Abu Lahab itam dafa topp ci kaw yonent ku yonent ne yàlla ma yónni ci yow di wax ak yow ba sa xol di ba a toj rek mu ne la demal sa yoon kii sama doom la waaye xel mi dafa yàqu bees bu ko déglu daf lay dof loo kat loolu daal liggéey moom ah ba yàlla xas leen ci alquran xas lim leen xas tabbat yadaa abii lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahabin wa imra'atuhu hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad ñoo ñaar seenu xas ñu ngi koy jàng ba pencam yàlla tabuñ dee dem safara Baay wax na ne Ebola ak li muy bon bon ne kenn du ko lakk dañ koy génne safara mu noppal tuuti lu tax keroog ba ñëwee ne ko yow su juddu na jaamam bi ko ko wax ko bég ba goreel ko war ne ko demal goreel na banaa la yàlla loola rek ci la ko yàlla fayee guddi altine bu jot dañ koy génne safara duñ ko lakk moo loo xam ci yéen ñi nga xam ne ku nekk ngi bàyyeekoo ci gox bu fasanti ko paas paasam tëj këram dénk ko yàlla ak njabootam dara taxul lu may bëgg yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne moom la leen yàlla fayee xanaa dëkk ak bàyyi aljanna rek yal nañu ko yàlla defal bi jaay rasulillah loolu mooy xew gannaaw gi nag ah ñu lor yonent bi ci boppam muy julli mitam im naa di kaccor bu bon bi ne waaw gisal yonent ma nga nene ca multazam ne yaay dafay sujjóotal yàlla ju kenn xamul fu mu ne ana kuy dem toroxal ko ma fojoo la fukki gëléem aboo jàll noonu yàlla bi ne man ñoo bàyyi ba yonent bi sujjóot mu fab ci yëpp gëléem mooy gëléem bu doon wasin àndaale am faf ko sotti ci kawam faf te bërit sotti ci kawam yonentu bàyyiwut jullee mu continuer rek ba mu sujjóotee sujjóotam ñaareel mu jël tànkam bu bon bi dëgg ci dox ak yonent bi bëggatam yi bokkeeku di bëgg a génn xasteen yàlla yi saaga leen saaga yoo xam ne kenn mënu ko wax ci wolof ah Abu Jahl ne ko am nga sa lii bu ko góor gu bokk ci bu waa ci waxoon tey foofu laa koy fekk faat ba kanam waaye nag rus na daal yaara ngi taxaw ne buur Makka daf doon xeex ak jigéen Abu Sufyaan ne ko lan lu nekk nag may naa la ko ba mu des ngay dóor doomu Muhammad ci Makka loolu du am mukk ci rafet jooju kat moo ko may moom ci lislaam la mu jublu dee tuub na moom Abu xam ah Xamsatu fekk dafa rëbbi woon biñ ñu nettali ko ko nag ne ko boo fekkoon niñ def sa doomi mbokk mi tey kon day fekkoon dana tàng mu ne lu xew ñu ne ko Abu Jahl moo bàyyi fekk fa ne muy sujjóot mu sotti sébrit ci kawam ak ci jëg gëléem dëgg ci am gi bëbëtam yi di bëgg a génn ñuy wax Fatima su ñëw raxas moom set daal koy sànni ay baat mu ne ko baat yi bëggoon naa mu génnee ci góor gu bokk ci Banu Hashim kon dootu ko wax mu ne loolu la wax mu ne waaw mu ne ko ci lala bu nguuram ba toroxal ko wax ko baat yu gën ko ci kanam dagam yi ak jaraafam yi li nga xam sax ci jàmbar yi yàlla ak yonentam dal di dangat dangat yi ñëw fekk ko fi mu toog li nga amee ak mu ne ko dégg naa li nga wax sama doomi mbokk mi xam nga saas wallaay su ma fa fekkoon ca saasa laa la yóbbu safara mu ne ko xay yow mbaaru da jeng mu ne ko maa tey jeng ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna xacc fett gi nga xam ne woon dóor ko ba ne falañ ci biir ñu dagam yi ak jaraafam yi mu ne aa mbiram Muhammad a ngi bëgg a doy waar kat gannaawam sët dugg ci nag nañ seet pexe kii nañ seet nuñ ko reyee ah Hamsatu booba weer mottali julli ñi ak juróom-ñeent waaye lu ko gën a naqaree ngi ñëw mu dem ànd ak Omar ibnu Xataab booba tuubagut ñu tëdd ca kaaba ga ñoom ñaar gannaaw bu ñu karte karte karte ba seen xol sedd ñu tëdd di nelaw nag ak borom téere yi ñu ne booba booba dafa defe nu Omar taanu moo tax ñu ŋàññ tëddee defe naay yonent di ñaan yàlla naan yow yàlla yàlla nga dimbalee islam kenn ci ñaari Omar yi ñu ne booba Omar moo taanu moom la moom la ñaan nga dal bi mu xeewoo nag di ñibbi këram ma ngay tërëf nag ngir mandi sangara te fekk xosefatu ñu yewaan yi ne ko aw lu xew ci makka mu ne ko lu doy a fa tew sa doomi mbokk mi ngi fi bawoon Muhammad ibn Abdullahi yonentu yonentu la la indi na ab téere ñu naan ko alquran suñ koy jàng góor ak jigéen ñëpp bandee di jooy dootuñu am seen sago téere bi sax dañ dañu koy jàng sa kër mu ne sama kër man ñu ne ko aw ah, mu ne ko loolu mu jaam kenn ñëwuti yaa nga alxuraan sama kër mu ne ko sa jigéen Fatimatu bintu Xattaab ak jëkkëram ñoo koy jàng gis nga Omar dafa mbëru woon ba muy dox ci suuf dangay foog ne ak saxaara yi ñëw tànkam yi ne koy def diŋ diŋ diŋ muy ñëw ñu ne dencal téere bi dencal téere bi Omar a ngoog waaye bi mu jubee ndaw si ñu ngi fekk muy jàng sabbaha lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi l-ardi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa alaa kulli shay'in qadiir وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم nees kay ay ay ji wax a rafet ba mu duggee ñu denc mu ne ndaw si ma seet li ngeen doon jàng mu ne ko déet doo ko gis mu ne ko déet man li ma dégg daf maa neex ma seet rek ndaw si bañ mu fekk ko nag ndaw si daanu daldi xaw a gaañu mu am kersa ne ko lii yëpp mënoon na ca bañ a fekk man li ngeen di wax daf ma neex rek ma bëgg koo xam léegi sax waxatuma li ngeen di wax Muhammad ci boppam laa bëgg a gis mu ne ko waaye repp nga nag la wàccoon ci aada sa mu da wàcc ci yow sa mbaru gii boo ko jëmee ci yoon ci àll mu sallallahu alayhi wa sallam malaaka dana wàcc ci suuf fëkk la yóbbu safara sa doo dee mu ne ko woon ma rek fu yonent nekk mu ne ko doo ko lor mu ne ko duma ko lor mu ne ko soo demee ca kër Arqam ibnu Abil Arqam ma nga foofa di jàngal julli ñi seen diine mu ñëw fekk fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu leen jubee ñëpp dal di rëji rëji ne xay xam na omar a ngoog omar a ngoog xam ne omar mooy kan su ñëwee te ñëweewu dugg ci lislaam jaa si jële mu rango laay nangu rayee ko ko xali ne ko bàyyi maag omar mu ne ko déedéet yéen ñëpp baleen maag moom yonente sallallahu alayhi wa sallam jóg ne leen déedéet bàyyi leen maag omar ah ñu ne ko yonente balaa ko omar nag dana doy waar di mu ne beneen mag moom rek ñu bàyyi ko moom waaye daal seen xel dalut ndax bëri bu Omar bëri doole ak mën a xeex ku mën a xeex ba mu la jarañ rek yonentu jóg dóor xët ci dënnam ne ko Omar ibn Xattaab ba léegi gëmoo ne yàllaa ma yónni de maa ngi koy waaj gëm moom sa xët nii bi nga ko dóoree ci dënn bi yëg naa loo xam ne dëgg dëgg bàyyeekowul ci mbindeef luy sa diine mu ne ko nga jaamu yàlla te doo ko sàkkal bokkaale dëggal na itam man yàlla moo ma yónni mu ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xaal jàpp ko nag muy jooy rek ba ca kanam ñu jóg ne dañuy julli ne yoon bunt ba ne ñu ngay mu ne lii lan la ñu dañoo bëgg a julli mu ne duñ julli ne dañuy jaamu yàlla mu ne genn yàlla ñu ne yàllaay dëgg ji mu ne tëj bunt bi lu ci dox ñu ne ko xanaa bañ fee ba di fekk yu lor mu ne ah, loolu moom dafay jeex tey di na yonent naa di ñun wane ci dëgg buñ dee demal janna mu ne ne ko ñeneen nekk ci diiney caaxaan di jaamu laata wala suñ dee dem safara nëbbuñ ko ñun ñu di ko nëbb xaa ah, loolu moom dafay jeex tey wax ma léegi kat su fekkee li ngay xoote mooy dëkk man dugg naa ci dootuma dellu gannaaw su fekkee di dëgg nag sama tam tam daa nga jeex bu ma dem mottali ji ko yonent ne ko li ma nekkee dëgg daal di ree gis nga ceddo lu dafa yomb a dellu ci ceddo ah mu ne yonent waxuma julli fii di tëj bunt waaye dañuy dem julli ji ca Kaaba ga ku ñu fa fekk ñu defanteeg yow lu ñu yàlla teg ñu xam ne loolu la yonent ne bisimilaay gis nga Omar dëggu gum dëggu tax na fanweeri laaya wàcc nañ yépp di dëggal Omar te yonentu mooy jël décision Omar ne ko doo ko def ñu werante laaya wàcc ànd ak Omar bokk na ca ba Abdullah ibnu Ubay nu senoon dee te yonentu taxaw ne daf koy jullee mu ne ko lan mu ne ko dama koy jullee mu ne ko doo ko jullee mukk kii duutoon jullit kéefar la woon waaye dafa nëbboon kéefaram ndax ragal suñu jaas yi képp waaye du jullit yonent ne ko waaye man umirtu an uqaatila naas xataa yaqulu laa ilaaha illa muhammad rasulullah wa man faqad asa minni dimaahu wa wa xisaabuhu allah man kat dañ ma digal ne naa jihaat ak bañu wax laa ilaaha illa muhammad rasulullah képp ko wax nag te diggante ak yàlla moo des waaye ma amatuma droit wax la jullit wala doo jullit mu ne ko kii bokk ci de kii kat doo ko jullee bañuma ci dara laaya wàcc ci diggante Omar ak yonent لينت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا ne wallaay keroog biñ jàppee jarjari badar yi sama baay ku njool la woon moom moo ko xamaloon bu bu teraanga jooju moom a woon mu ko ma ñëweeti ko waaye man bu mooy sama ndigalal borom kooku mooy Omar ibn Xattaab bañ jullee ba pare nag dellu ca kër ga mu ne yonent man foo na si meetar ci makka daanaka mooy naa fa yàlla léegi dama bëgg nga may ma fu ma mooy yàlla ma taxaw tudd yàlla yonent na ko demal mu topp makka nag guddi ca baat bu naqari ba ma ngay sikkar fu mu toll laa ilaha illallah muhammad rasulullah laa ilaha illallah muhammad rasulullah yéefa di ne mu waay kii di Omar na jaayam ne leen xaw ma Omar xaw ma lu Omar ku gëm yonent bi da ngeen ko lor waaye sama jarbaat bi képp ko laal danaa ko diggaale yow te booba na yaayam ci ñu doole ci màkk la bokk mu yaasir ñu waaye yonent ñëw ne omar ñëw ne yonent ah waaw moom ku dugg ci islam ñu lor la man ma dugg ci islam ma dara lu xew mu ne ko sama yaay moo la ne xéefar man kay xéefar du garanti ñëw ne banu Quraysh fekk nañ fi toog ci daaru nadwa mooy leen yéen ku dugg ci l'islam da ko lor man ma dugg ci lislaam waxu leen ma dara xanaa ñu da ngeen ragal bàkkaar yi ngeen doon ñu ne ko sa najaay lañu rus mu ne ko najaay mu ne ko naam mu ne ko basara laata boole koog yàllaam ji saaga leen saaga woo xam ne kenn mënu ko wax ci wolof mu ne ko yaay doom ji bon te bor bi nga defee woon tey jii laa ko mujj a mu ne ko yow caas ah mu ne leen jóg naa sama diggante ak yéen Omar mu ne gaañu jóg nag song ma di ma dóor ma di may dóor bañ xotti sama mbubb sama yaram tàng jiw ma ñëw ne yonent waaw kay ku bëgg yàlla ak yonentam ñu lor la man Omar ma bëgg yàlla kenn loru ma loolu te ngeen ragal yàlla te dem toog di wax ak ñoom bañ waññeeku mu ne ko gis nga maa ngi wax pare gu ma xaat gawar yi yaag si kii buñ gisoon sa doom ji rek daañ ko rey mu wàññeeku delloog yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la nekkee maamam bi mu amee juróom-ñetti at ci yenn riwaaya maamam génn àddina riwaaya Ibn Hisham loolu la wax am na yeneen ñu wax ne na fukki at Abdul Muttalib door a génn àddina bi muy génn àddina nag dénkaane na ko dénkaane na ko ne leen xale bii na ngeen ko bàyyi xel xale la boo xam ne mbiram lu màgg la te xale la boo xam ne suñ ko peese woon ak àddinaa gi ci biiram dana leen lëng ci ngëneel daal di koy fab dénk ko abu aboo taalib mi nga xam ne mook baayam ñoo bokk na bàyyi kooku moom mottali ab yaram bi mu ko amee ba mu am fanweeri ak juróom wala ñu ne ñaar fukki at ak juróom fanweeri at ak juróom moo gën a wér bokk na ca liggéeyu tabaxaatu kaaba ga wala ñaar fukki moo gën a wér bokk na ca liggéeyu tabaxaatu kaaba ga ndax booba safara doo ñëw lakk ko ñu di ko tabaxaat xam nga kaaba gi tabax nañ ko juróom-ñeenti yoon malaaka yi ñoo ko njëkk tabax gannaaw malaaka yi yoon ci Yàlla Ibrahim tabax na ko gannaaw Ibrahim Adama de malaaka yi ñoo ko njëkk a tabax Adama tabax na ko Ibrahima tabax na ko xamaaliqatu yi tabax nañ ko jurhumiyuuna it tabax nañ ko ba banu Quraysh tabax nañ ko naka noonu Xajaaj ibnu Yusufa tabax bi ci nekk léegi moom moo ko tabax bi nga xamee ne nag yi ñu ngi koy tabaxaat yonentu bokk na ca sallallahu alayhi wa sallam bañ tabaxee baag si ci war a teg xajarul aswad ñu soowoo ca gis nga a gën a ñàkk bopp ba bëgg a génn jaasi liggéey ba bëgg a yàqu ku ne nag giit gu ne ñu ne yaa koy tabax may teg xeer yi may teg xeer wi ñu mujj daje ne léegi ñun ñeenti giit lañ nañ d'accord ci su ëllëgee buñ fi tasee ku njëkk a fël ci buntu baabu salaam kooku lañ tànn mu teg xeer wi ñoom ñoom ñu juboo ca ba ñu xëy rek ñu seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy temp di ñëw ñu ne kii la yàlla tànn daal di xeer wi jox ko nee na ko teg foofa la jëkk a wane xikmatu mu ne leen léegi yéen ñeenti giir ngeen léegi indi leen darab bu mag kiit gu nekk nañ jàpp ci benn koñ ci darab bi ngeen teg xeer ci digg bi ngeen ànd yëkkati su ngeen demee ba toll fi ngeen ko bëgg ma tegal leen ko fa bu ko defee duñu wax ne kenn ko teg bàyyi ka ca des sallallahu alayhi wa sallam loolu la njëkk a def ba mu demee nag ba am ñaar fukkiyaat ak juróom ah ñu gis ne léegi mi ngi nekk ci mag te war naa am jabar ñu ne nu ñuy def ba mu am jabar ñu ne ah nii moromam yi rek na dem defi commerce Xadijatu bint Xuwaylid mooy capitalist bi nga xam ne moo fi ëpp alal ku bëgg dangay dem mu jox la alal nga def commerce soo paree ngeen séddoo bénéfice ah mu ñëw ci Xadijatu foofu itam na am na xisa xisa bi mooy lan Xadijatu xam nga njëkkoon naa sëy amoon na jëkkër ba jëkkër ja gaañoo amoon na ca doom ah bés moom xadijatu mu génn di permanente ànd ak ay moromam yu jigéen gis nga jigéen ak morom ma am ko ci kafe ba dindi musóoram karawam génn malaaka yi xàccu ko wala mu dégg baat daal xaatif lañ koy wax mooy baat boo xam ne da ngay dégg kiy wax te doo gis borom ne ko xadijatu da ngay génne sa karaw xanaa xamoon ne yonent bi yàlla yónni ci mu yàgg jamono yow yaay doon jabaram mu xool pen ko xarfu gisu dara mu muuraat boppam daw keroog la gëj na dootu génn mukk bi loolu amee mu tëdd moom xadijatu jëmmi bés géwént weer wi xolombaay wàccee ci asamaan ba daanu ci diggante ñaari luppam ba dugg ci payam mel ni dafay seeg moom mu génn dem ci boroom xam-xam bu ñuy wax waraqatu ibnu nawfal jàngoon na téere yu njëkk yi ci diine yi nasaara la nekkoon nettali ko géntam mu ne ko su fekkee ni gént gi ni nga ko waxee la yonent bi yàlla yónni ci bu njëkk jamono yow yaa doon jabaram mu boole nag wax yooyu dali koy denc bi yonent ñëwee ci moom te dégg na li ko màkka di jëwee nañu ñun de jirima bi jaaxal nañu gone goo xam ne li màkka di teewoo lépp du ci def dara dara dara dara du dem ci géew yi ngomlaan yi te booba màkka dara du seen liggéey lu may yoote ak tànk si nganaar waaw naan sàngara nekk ci géew yi di fo ak caaxaan rek ba guddi gi loolu lañ koy jeexal bëccëg bi dañuy nelaw bu ñu yeewoo dem commencé di dog nit ñi kuñ mën rek daan la nangu saalal loolu doon seen seen mbir yonentu mësta bokk ci yooyu ñu di ko ko jëwee nag xadijatu dégg na jëw yi ñu naan xale bii dana mos a feeñal mbir bam mu ñëwee nag wan ko ne dafa bëgg a def commerce bëgg mu jox ko capital xadijatu sawar ca lool la muy jox nit ñi mu jox ko fukkam yebal ko nag mu dem defi commerce yemut ca mu boole kook benn jaamam bu ñuy wax may saratu ne ko kii ma la booleet damaa bëgg nga di ma defal ci moom rapport lépp loo gis ci moom rek nag ma ko bind may saratu lam njëkk a gis mooy yonent dafa ànd ak benn xaafila mooy benn gawar benn groupe commerçant yu bëri ñu ñëw ku bëri woon kersa la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee fekk ñu toog ci ron ak garab garab gi fees ba amul fu mu toog mu toog ci cat ker gi genn wàllam ne ci naaj wi genn wàllam ne ci ker gi garab gi ne buddet bàyyi fi nit ñi ñëw keral ko moom kenn sallallahu alayhi wa sallam loolu la may saratu njëkk a bindu yëgal ko xadijatu bañ demee ba ca luuma ba fa ñuy war a jaayee ñu ngi ko daan wax suuqul arbia marché àllarba mu jël pavillon installé nag aha may saratu mu ne amatuma jàmm nag jaay ma jaay ma jaay ma dafay joxe joxe joxe bàyyi mbaggam di métti suñ jaayee ba bër set rek suñ ñëwee fekk marchandise bi mel ni kenn laalu ko ndeke yow malaaka yi ñoo koy jënd te malaaka amul soxla ci marchandise buñ ko jëndee bu guddee ñu delloo si ko Ousmane Niang defe naa boobu commerçant du perte moom ah ba loolu amee nag ah jaay nag ba commerçant pare mu ñibbi ñëw jébbal Xadijatu ba mu ko ko jébalee dem ñibbi gis nga bàyyi nee na yonent bi dafa bëri yoon kersa ba mel ni jànq bu sëyagut xam naa jànq jamono jooja la ah ba mu ñëwee mbokk yi ne ko waaw yow loo jëlee ci sa commerce bi mu ne jox naa ko xadijatu mu ne ah jamal mu fay la dañ la bëgg a takkal jabar yonentu ñëw sallallahu alayhi wa sallam su ñëwee ba jub xadijatu rek waññeeku def ko ba muy ñetti yoon xadijatu oo ko ne ko muhammad taxawal yonentu taxaw sëgg woon ko gannaaw sallallahu alayhi wa sallam tànk yaa ngi laxasi ba muy bëgg a daanu ndax kersa xadijatu ne ko lan la ñaari yoon a ngi nii nga ñëw di waññeeku ba ñett lu xew mu ngay wax làmmiñ waa ngay fasu mu ne ko sama bokk yi day ñoo ne naa ñëw nga fay ma dañ ma bëgg a wutal jabar <laughs> mu ne ko ah dem commerce benn yoon rek takk jabar mu ne ko ñoom de loolu la ñu wax teg Muhammad Muhammad muy wéy mu daal di woo jigéenam Ummu Hani bint Abdul Muttalib ne ko dama laa bëgg nga demal ma ci Quraysh ci sa baay yi gisal ma Abbas Haris ak Hamzatu ak Abu Talib ne leen ak noonab yàlla bi Abu Lahab nga waxal ma leen ne Muhammad daf doon wax ak man ba wax mbiri jabar léegi nag dama koo gisal jabar su fekkee bëgg na ko danaa fexee ba mu nekk jabaram te bu ko nekkee dana nekk ndimbalam jabar ji ku baax la ku rafet la am na daraje te ci juddu bu mag la bokk benn sikk daal la am mooy dafa xaw a magee moom ak Mouhamed ndax mi ngi ci ñeent fukki at te Mouhamed ak ñaar fukki ak juróom ah moo tax takk ko la mag dara nekku ci ah ba mu ko defee mu ñëw. wax ko yonent bi yonent bi ne ko demal wax sama ñoom bàyyi ña nga nale mu wax leen ko gis nga yaaram dañoo rëy rëy ñu mer ne kii nag xaaral ñu ñëw wax ko boppam kii mbaadu alalam ju bëri jee ko jay ba muy xalaatal Muhammad jabar xalaatul ko lu muy màggat ana jigéen ju màggat ko xëy daal ko koy takk xaaral ñu ñëw toroxal ko nag daal di ñëw dañar dañar dañar ak ko nag ci coow lu kenn mës a gis muy leen def leen ndànk man màggan mi sama bopp laa ci jublu su ma bëggee may naa ko sama bopp li ma yàlla jox lépp jox naa ko addiya ñu ne ah yow day màggatam gars yi ne nag kenn du la bañ yow ah waaye nag négal ñu dem laaj Muhammad ñu ñëw laaj ko mu ne lu ngeen wax rek loolu laa wax ñu labatal ko ko nag may ko ko ah bàyyi mu ne booba xuwéylit su ko daan nettali ne booba xuwéylit ma ngi ca ndof ga mooy baayam ñu ñëw labat ko mu ne ah xanaa waxu leen Mouhamad Jirima Abdoulaye bi ñu ne waaw mu ne ak ah, ko kay du ma ko may jabar gone goo xam ne bëggu dara lu may di yàlla ju kenn xamul fu mu nekk dégg nga du dugg ci suñ mbir yi mel ni juddoo makka aadaay xoroy same kooku duma ko may jabar booba góor gi benn bànneex rekk la am ci àddina moom mooy sàngara xam nga booba diine lislaam amagut dara xaraamut wala diine xamagul daal di tëral ak atte mu leen góor gi moom baleen maak moom rek ba mu ko defee mu ne ko góor mu daal di koy jox seen sàngara bi ñuy wax nabiis góor ga naan ca naan naan naan ba xamatul fu mu nekk mu ñëw ne ko affaire yi Muhammad laa la doon fàttali mu ne ko du mayoon naa la ko démb màndi mu ne ko aha na wér mu ne ko may naa la ko waay ah mu jox ko kayit na ko bindal mu bind daldi signé mu defal ko invitation ci guddi ah invité waa Màkka yépp ñu ñëw reeree fa mu solal ko mbubb booba koo takkal jabar daf lay solal mbubb bët set góor gi xeri nag daldi xool mbubb mi ne moom waay man kañ laa daloo ñu ne ko ah, du da nga maye sa doom biig mu ne déedéet xadijat ne ko bul tax makka daje fii mukk naan sama baay dafa dof yow biig nga ma maye def invitation bind signé mu ne seytaane may fooye rek waaye muhammad du ku ñuy du kuy du ñu daq ci mbalka yàlla na yàlla barkeel sëy bi noonu la yonent yàlla muhammad nekkee xadijatu mu nekk soxnaam xadijatu di jaraaf ji ci jaraaf yi ba ko yonent takkee sallallahu alayhi wa mu ne ko démb bi ma takkagul jaziratul arab maanaam nga ne Afrique yépp maa fi ëpp alal tey bi ma takkee maa fi gën a ñàkk lépp lu ma yoroon ci jaam ak i nag ak i géléem tooli tàndarma wurus xaalis lépp jox naa la ko àddiya yonent ne ko maa lii wali duniyaa waaye man awma soxla ci àddina jëlal sa alal di ko doxal nanga ko daan doxalee dee ma defaral rek mbuusam tàndarma mbuusam njar ak mbuusam ndox may dem fële may wéetalee sama borom booba yónneeguñu ko waaye ab yonantu la booba mi ngi mel ni majzu boo xam ne dafa jël askaaru tarbiya soobu te àggagul nag dem ba sappu te àggagut xam nga dootu xajoo kenn bëggatu gis kenn ci àddina ku ko jege mu daw la yonantu noonu la meloon sallallahu alayhi wa sallam ci biir xaram bi la nekkoon daan wettalikoo xaram bi waaye xërëm yu bëri yi nga xam ne ñoo fi nekk di seen ñetti téeméeri yàlla yeeg juróom benn fukk tax yonentu daal bakkanam sib foofu mu jóge fa nag di dem di toog ca xaaru Hira ca jabalu sóor di wéetal boromam booba mi ngi jaamu yàlla ci diine yu yonent yàlla Ibrahima ah di xalaat rek booba jaamu gi loolu la woon mu ne ba jëmmi bés ma seen benn piliyaan muy xolambaay jóge ci asamaan ba tegu ci sama kanam jëmm ju rafet wàcc ci nuyu ma ne ma maa ngi lay nuyu nuyu naa la yow yonent bi yàlla bi sa borom nuyu na la moo ma yónni ci yow mu ne nga jàng mu ne ko man duma jàng doon ma jàng ah mu ñëw yoonu ñaareel mu ne ko duma jàng doon ma jàng yoonu ñetteel mu ñëw mu ne ko duma jàng mu fitnaal ko nag ba mu demee nettali ko jabaram xadijatu ne ko man de fële ma daan wéetalee sama borom benn waaye ma ko yàqal bu ñëwee rek naa ma jàngal jàngal te man samay maam jànguñ samay baay jànguñ man doon ma jàng Xadija ne ko loo koy tontu mu ne ko dama ne ko du ma jàng doon ma jàng mu ne ko bul ko waxati loolu su la nee tey jàngal laaj ko lu may jàng moo tax mu ëri xune yi di wax ne foo fekk góor gu màgg am na jigéen ju baax ju nekkoon ci wetam di ko dimbale moo tax mu màgg gis nga ki gën a mat ci mbooleem li yàlla bind gën ci mbooleem jaami yàlla yi conseiller bu ko jigéen jox moo ko dimbale ba mu mën a jot risalam boobu ba mu ñëwatee ne ko jàngal mu ne ko lu may jàng mu ne ko jàngal ci sa turu borom mu jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq falaa quran njëkk a wàccee ca ëllëg sa mu ñëw indi ab super indi ca ndox jàpp julli yonentu julli moom itam sallallahu alayhi ba ni ko yàlla yónnee nag gannaaw bu mu amee ñeent fukki at ci la ko yàlla yónni ndax ñeent fukki at ci la xel di matee nit jot li nga xam ne mooy âge majeur am pour mën a jot amaanatul kubra bi nga xam ne moom la ko yàlla yónni ci la koy door a jot yàlla yónni ko nag altine la ko yàlla yónni bët set di talaata rek xadijatu tuub na julli naan ak moom loolu teraanga la ju yàlla defal jigéen ñi lépp lu yàlla jox yonent yàlla muhammad rek jigéen a sa njëkk a xataa diine lislaam jigéen moo ci njëkk joxe ba kanam di suma yeetu ba loolu amee yonentu nag yàlla yónni ko bi mu ko yónnee njëlbeen nag yonentu gi daf ko daan nëbb ndax yonentu bu nekk noonu ngay tàmbalee néew ji doole yi ñoo koy njëkk a gëm ak ak ñu di nit ñi noonu waaye ñi nga xam ne dañuy tuddee seen bopp ay sang ak boroomi askan ñooñu rëy daf leen di jàpp ba nga xam ne ñooy mujj a jariñu ci lu baax lu ne rek ñoo cay mujj a jariñu ndax seen bakkan ah ñooñu nag njëkk a gëm yonant lu nekk daj nañ ko ci seen diine guddi gi dafa dem moo tax fokk ñu jéem a taxañ siira bi ndax ñu jàng ci dara tuuti ki nga xam ne moo njëkk a gëm ci mboolem li yàlla bind gannaaw yoon ci yàlla Muhammad mooy xadijatu ki nga xam ne moo njëkk a gëm ci mag ñi mooy Aboubacar Siddiq ki njëkk a gëm ci xale yi mooy Ali ibn Abi Talib ki njëkk a gëm ci ñi moom mooy Bilal ki njëkk a gëm ci may yàlla yi nag kooku mooy Ammar ibnu Yasir ñu nga xam ne ñoo njëkk ci diine islaam mbugal xeetu mbugal wu xel daj ak wu daju rek def nañ leen ko Bilal umayatu moo ko moomoon cofeele yonent bi dafa dugg ci moom mu gëm ah ñuy naan sàngara ñoom sàngam yooyu di waxtaanee mbir yonent beeg fexe yu ñu ko war a fexeel bilaal kaas yi ma meewoon lox ba daanu ñu ne kii lu muy def nii mu ne yonent bi ngeen tudd rek moo ma jaxase ba mënatumaa am équilibre ci sama bopp ñu ne jaam bu ñuul naan dangay lan xaw ma kenn waaye yow doo ko nettali daldi xëy futti ko gis nga makka ni mu tàngee lépp doj la ñu bàyyi ba mi di jot ñu yeew ko ci buum fay ay gone ñu di ko diri ci xeer yooyu suñ ko ci diree ba guddi ñu fanaan koo caw di ko sotti ndox bu ba set waaye ànd loolu yépp mi ngi naan ahadun ahad yàlla kenn la yàlla kenn la bés yonentu romb na ko jëm ci kër arqam ibnu abil arqam fala daa jàngale jullit ñi daldi ne abubakar siddiq doo jot jaamab yàlla boo xam ne deful dara lu may ne gëm naa yàlla ña koy bugal ma nga naan ahadun ahad abubakar ñëw ci uma yeetu ne ko kii sa jaam la su dee yow yaay gis nga nag ñoom fuñ dee ak xaalis leen rey ma jaay la ko mu ne ko loo ma jaayee ma jënd mu jaay ko ci ñaar téeméeri li bi doori hurus mu fay daldi xewi bilaal nag ne ko demal waxal ahadun ahad fu la neex kenn dootul a yeew amaar ibnu yaasir Abu Jahl ibn Hisham noonab yàlla bi daf koo jël yeew ko ci dàttab tàndarma ba mu tolloog ndiggam muy ne nañ ko taxanal ñuy taxan di taxan di taxan ba safara sa toll ko ci ay wóom mu ñëw ne ko ay ca weddil yonent bi léegi laa wax wala ma lakk la fii nga toog mu ne ko du ma weddi yonentu mukk lu la neex booy boo def mu ne dur taal safara sa ci kawam safara sa di takk ba gereesam gi moo doon rees di fay safara wi yonent romb ko ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala maar bardan wa salaaman ibrahim yow safara si nekkal di sedd seddab jàmm ci Ammar ibnu Yaasir ni ki nga seddee woon ci yonent Yàlla Ibrahima bañ ko sennee ci safara mu ne su waxutoon sedd bi dana ko rey waaye nag ko seddal seddab jàmm mu nekk sedd bu yem rek safara waa ngay tàkk di jër-jër yi xame meloo safara waaye yàlla dindi jikko ja waaw ma ngay takk waaye ameetu jikkoy safara jikkoy safara mooy lakk waaye si safara moom dafay seddal boroom di ko may jàmm loolu yonent yàlla muhammad rek ko man sallallahu alayhi wa sallam su ma yeetu jabaram aboo jaal noonu ab yàlla bi daf ne ko xam naa ñiy weddi yonent bi yow yéen jigéen ñu du ngeen ci bokk ndax taaram bi waaye yow tey nga weddi ko wala nga wuute ko weddil yonent bi laa mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah mu fab xeej dëbb ko ci payam ba mu fal ci suuf kooku moo njëkk a wuy ji boromam ci diine islaam loolu lañ ko def su fekkoon ne ñi ñuy buggal dafa yem ci ñooñu rek kon ku dooye di dootoo gëm yàlla waaye yonent bi ci boppam muccut ci mbugal mi bés nekk na ca xajoon ca safaa di julli ba mu ko defee matam ibnu addi ma nga toog ak abul boxtari yi shayba toog utbatu walid ak noonu yàlla yooyu ak aboo jahl ibnu hisham ñu ne xool leen muhammad ma nga nele ca ruknul yamaan yi nee yaay dafay jaamu yàlla ju kenn xamul fu mu ne ñu ngi ko fay jàng mu ne sama kër ñu ne ko ah mu ne loolu kay moom mën naa dugg fu ne sama kër ñu ne ko sa jigéen fatimatu bintu xattaab ma ngay jàng alquran mu ñëw bi ñu leen jubee faatimatoo ngi jàng fahamaa anzalnaa alayka alquran li tashqaa ida mu ne ko bon nag ragal gi pour lan la tijjil bunt bi waxuma sax ñu jullee fii nañ dem jullee ci néegam yàlla balaa wax dal di jiitu mu ngi sikkar mel ni majso boobu nga xam ne dafa xàgg bees ma ngay sikkar di jaayu ndeyjoor ak càmmooy fu baatam toll yaa ngi dégg mu ngi sikkar ah Hamza toog ci jàmmo ci ndeyjoor yonent bi Ali ci càmmoyam saaba yi sënk ko nag ñu romb yahudi ñu romb yéefari ca daaru nadwa mooy seen assemblée bu bon bi nga xam ne ci lañ daan waxee lépp lu bon lu ñuy def bañ leen romboo ñu ne ah Omarit jàng na ñu ne Omarit jàng na na yaayam abilaas yi ne leen yéen a ngi nii nag ku jàng da ngeen ko fitnaal waaye sama jarbaat bi moom jëmewu mu ci kaf ku ko laal rek danaa ko diggaaleeg yow te booba borom barke la lu mu wax rek ay waxam waaw la sant ah ñu dem julli waññeeku dellu Omar nag ne yonent bi dama bëggoon nga may ma lenn gis nga màkk gii foofi natt meetar rek daanaka mooy naa fa yàlla dama bëgg ni ma ko feesalee ak mooy yàlla ma feesalee ko ak tudd yàlla yonent ne ko demal mu topp màkk nag bu nit ñi tëddee guddeeg bëccëg mi ngi naan laa ilaaha illallaa muhammad rasulullah laa ilaaha illallaa muhammad rasulullah di sikkar di sikkar di sikkar ba dara dalu ko mu ñëw ne yonent waaw man de damaa amoon ak laaj yonent ne ko lu xew mu ne ko mbaa du sama tuub yàlla daf ko bëggut ah yonent ne ko lan la yàlla lor danañ lor sa njaboot danañ la dóor man ma bëgg yàlla ak ab yonentam fu nekk taxaw naa fa manifesté wu kenn faale wu ma mbaa du yàlla dafa bëggut sama tuub gi mu ne ko ana sa najaay lañ lañ lañ la rusal Aas ibnu Waayil mu ñëw fekk ko fi mu toog ak Quraysh ne leen yéen ku dugg ci diine islam da ngeen ko buggal dangeen ko sonal man ma dugg ci islam kenn waxuma dara lu tax ñu ne ko sa najaay lañu rus mu ne ko najaay mu ne ko ah, mu ne ko badara laata booba yàllaam ji muy jaamu laata la tudd mu saaga mu mboole ko yàlla ji saaga leen saaga woo xam ne kenn mënu koo wax ci wolof mu ne ko yaay doom ji bon te kat bor bi nga desee woon démb laa ko mu a fay mu ne ko caag. ah mu ne leen baax na bon nag man jóg naa seen diggante ak moom def leen ko ni ngeen di def nit ñi Omar mu ne gaañi song ma nag di ma dóor ma nit may dóor ba sama yaram tàng jir ba ñëw na yonentu waaw ku bëgg yàlla ak yonentam ñu lor la Omar bëgg yàlla ak ko loolu neexuma waay gis nga ñi bëggoon yàlla bu njëkk loolu leen jaraloon ah ba ko defee nag lor ji tegaloo ñu lor yonent bi lor ju nekk rek lor nañ ko ko mu jigi ñu ne daal nañ seet gannaaw fexe nañ lor nañ ko ba tàyyi te taxul moom mu découragé jóg ci lim nekk nañ ko jéem a convaincre boog fexe seet nuñ jubóoyee ak moom ndax mu bàyyi li muy wax moom dof loo na suñ xeli bàyyi ak suñ xeli doom yi fi mu ne kenn xamatul looy def ku dugg sa kër sax yaa ngi xalaat mbaa du yëfi Muhammad yi la doo ci dugg. an ñu dem seeti baayam Abu taalib ne ko léegi dañoo bëggoon nga waxtaanal ñoog Muhammad léegi tasaare na suñ mbooloo yi dofloo na suñ xel yeeg suñ xel yi xeli bàyyeeg suñ yi doom yi léegi dañoo bëggoon mu bàyyi lii muy wax su fekkee bëgg jigéen ko ci dugal may nañ ko mu tànn ci suñ doom yeeg suñ jabar yi lu mu ci bëgg ñu waccee ko ko su fekkee bëgg alal la pare nañ pour kenn ku ne ci ñun xaaj saalal ci digg jox ko mu ëpp lañ ñun ñëpp su fekkee bëgg nguur la pare nañ pour def ko buur nga juboo ne nañ lii joxe sallallahu alayhi wa ne ko la wadaw shamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka asar ma ne ko bu fekkoon ni dañoo jël jant bi teg ci sama ndeyjoor mu di ma lakk ñu teg weer wi ci sama càmmooy mu di ma lakk ngir ne bàyyi mbir mii duma ko bàyyi mukk ba ba ko yàlla àggalee fa mu àgg wala sama bakkan dem ne ko waaye nag mën naa leen a jox condition bu gën a yomb li ñu wax yépp benn baat rek suñ ko nangoo wax ku ñuul ak ku weex yépp da nga leen fay galak ku leen bañ a topp rek da nga leen fay galak ñu ne ko gaawal ñu wax ko téeméer yoon mu yéen wax leen laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah ñu ne ko yàq nga waxtaan yépp nag ñun loolu lañ bañ ba def yu ñuy dem nga naan ñu laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah ne ko yow ndax yaa ngi ànd ak sa xel ñun ñi nga amee ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te ba léegi suñ soxla yi mënta arrangé nga di jàmmaloo jenn yàlla xanaa yow daf ñoo bëgg a toroxal yonut ne leen seet jàpp leen ci jenn yàlla ji def ñu ne ko duñu ko def léegi nag liñ lay xamal mooy lii ñu la wax soo ko nanguwut di ko menacé yonent ne leen lakum diinukum waliya diini dem leen man lii ma ne su ci dee it kontaan naa ah sallallahu alayhi ñu dellu si ne bàyyam ba tey xam nañ ne Muhammad taaram bi moo tax nga bëgg ko ba mënoo koo sacrifier waaye dañoo bëggoon ñu jox la suñ doom ji Amaaratu ibnu Walid moom it ku rafet la te ku fasaala su ko defee nga jël ko ci place yonentu jox ñu yonentu ñun ñu rey mu ne leen xanaa yéen da ngeen a dof ngeen jox ma sama doom ma di ko yafal di ko dundal man ma jox leen sama doom ngeen rey fu ngeen ko tëral ne leen defuma ko daal di wayal yonentu nag ni ko tallaaye lan yasilu ilayka bi jamee xataa kunu fi turaabi dafina maa ngi lay gëñal ci sama ki bind sama bakkan ne du ñàkk si ci yow mukk lu may dama sàngoo suuf sama jigéen ñi ténj sama doom yi jirim waaye féeg loolu amul kenn du ak si ci yow sallallahu alayhi wa keroog ca xare badar abu ubaydata ibnul haris wax na yonent bi ne ko bay ci yooyu aboo taalib doon way moo ko way waaye man maa ko am sallallahu alayhi wa ñu way tuuti te dellu si allahumma salli ala sayyidina muhammadin nuuruhu leeram ga gaayni li ilaahi ci wattuk borom sama binti xaalin ci toxu ba dan ci xaalin ci gannaaw toxu alquran a nga koy wax naa wanu watu xallubaka fi saajidiin yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy bàyyi bàyyi mooy bàyyi doom yi mooy ki nga xam ne moom la yàlla bind moom la yàlla njëkk a bind ndax yàlla moo fi nekk fi dara nekkul ba bëggee lu ba mu defee tëjali ci boppam loola feeñ cag tajalli ba ci la bind yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi gi dafa sori lool fokk ñu taxan xisa bi tajalli mooy lan nga ñëw taxaw ci kanam seetu jëmm jooja di feeñ ca biir seetu bi loola mooy tajalli jëmm jooja di feeñ day yow la waaye du yow soo demee mu dem soo waxee mu wax soo reyee sax dana rey ci biir seetu bi waaye danga xam ne boo laalee da nga xam ne dara nekku fa kooku nag aarifina yi ñoo ci ëpp dégg doomu aadama nekkut jàpp na ne nekk na waari fii ne dañoo wax ne bakkaar bi gën a rëy mooy jàpp gi nga jàpp ne ku yow ku nekk nga te nekkoo ndax yàlla rek moo nekk nekk ak yàlla googu lu nekk rek ca loola nga nekk soo demee ca majzub ba fa muy sooboo ma ngay wax naan wa bi iqraar yi bi sareyaani qayumiyatika fi kulli shay'in وعدم احتمال خروج شيء دقا جل عن علمك وقارك حتى لحظة سكوني maa ngi tudd sellak boroom bu màgg bi nga xam ne lu dal ci moom la dal lu yëngu ci moom la yëngu loolu mooy laan nit ku nekk tey lay yàlla ci moom su jógee ci moom rek médd ak deret moo fay des boo ne woon léegi diw na nga tudd dana laal loxoom fenn ne la man nga ne waaw mu ne la diw teg dënnam ci loxoom ne la man aadama Adama ngi tudd Adama Thiam waaye dëgg-dëgg foofu mu laal xam na beneen tur dënn la tudd bu ko toxalee mën naa laal jë su ko toxalee mën naa laal mbagg lu nekk am na tur waaye lay Adama Thiam ci boppam loola moom xamu ko te mënu koo xam loola nag mooy xaqiqatu zaati bi nga xam ne mooy jëmmi dund di dund ci doomu aadama june nga xam ne moom moo ko tax a nekk loolu nag teggin mayewut wax ko ci ci mbedd waaye daal yàlla bi mu defee jël tëjëli ci yoon ci yàlla muhammad comme ni ngeen ko xamee ah jëmm jooja kersa daf koo jàpp ndax taari yàlla yu rafet ya mu gis gis nga doom aadama ñaare bu amee kersa rek dana ñaq ñaq woowa ci la yàlla bind géej yi ci la bind ngelaw yi ci la bind suuf yi ci la bind asamaan ci la bind arasa kursiyu ca la bind mustawan moo tax mu ne kuntu nabiyan aarifan bi nubuwati wa adamu baynal maayi wa tini man nekkoon naa dib yonantu boo xam ne xam naa sama yonantu te booba day aadama ma ngay ban nekk ca waaw ma nga nekk di ban bu tooy yàlla bindagu ko loolu am na tegtal carañaan ma xal naa ñëw léegi incha allah bu ñu yàlla mayee ci guddi gi yonantu dafay dem ànd ak jibril ci rañaan mi romb nañ asamaan yi yépp ba jeexal asamaan yi waaw romb sidratul muntaha romb bayti maamur romb araas romb kursi jibril ne ko nag sang bi juróom-ñaar fukki péeng ci sama kanam yoo xam ne bu ma ci jege dana ma lakk ni cunkóor di lakkee ni safara lakkee cunkóor foofu ak sa borom rek yéen a fa xaj bàyyi mu ne foofa fala yonent bi delloo lépp luy géej ndox ci moom mu delloo ko géej yi lépp luy suuf ci moom mu delloo ko suuf lépp luy saxaat ci moom mu delloo ko asamaan lépp loo xam ne waaw bokkut ca la bàyyeekoon ca jëmm ju tedd ja ba muy ñëw mu delloo ko loola nekkaat dalam nekkoon rek ñu delloo ko fa mu nekkoon mu nekkaat la mu nekkoon loolu nag ba loolu amee jibril di wéttalante moom ndax aadama yétu daf ko doon bëgg a jot yónni Jibril di ko waxtaanal yonent ne ko aw yow Jibril man ak yow ku mag mu ne ko aa ah, sang bi man day mag laa lool ndax am na biddiw boo xam ne daf daan feqee di dem kursiyu su feqee balaa feqati na am juróom-ñaar fukki junne at biddiw boobu feq na ci sama kanam juróom-ñaar fukki junne yoon yonent ne ko waaye man maay biddiw ba kon moom moo ko mag kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag su fekkee dañuy wax ci ak aadami yatoom muhammad la tudd abdoulaye ko jur ak aminatu mu nga juddoo makka mi ngi juddoo ci bu bani abi taalib ci amul fii la juddu gannaaw boo xamee ne xew xew xew abarata na ba am juróom fukki fan ñu ne ñeen fukki fan ak juróom ci la yonent yàlla muhammad juddu sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddu juddoom am na tegtal yu bari yoo xam ne xew na ci juddoom ndax booba fekk na faris ñi nga xamee ca kisra néeg boo xam ne tabax la woo xam ne junney nguukaan ñoo ci dëkk ak buur bi ba mu juddoo keroog tabax booba dafa toj fukki toj toj ak ñeent faris ñi nga xamee woon safara woo xam ne dañ koy jaamu junneyaat xam na junne xambkat ak junne yu uppkat keroog ba yonent juddoo sallallahu alayhi wa sallam keroog la safara woo fay ba mel ni musuñ koo taal Room ñi ngi amewoon ca dëj la ndox moo xam ne dafay yol ñu di ko jaamu ndox mooma keroog ba yonent juddoo sallallahu alayhi wa sallam keroog la ñiis ba mel ni dara ba sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yonent juddoo képp kuy buur ci àddina salal dafa damm suñ ko sampee mu damaat buñ sampee mu damaat mu jigi lal yi wax ak ñoom ne leen tey benn buur rek kay fanaan ci ko mooy Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa bi mu juddoo nag dafa fekk baayam maamam abu taalib ndax balaa moo juddu wala ñu dellu taarix tuuti gannaaw dellu tuurix taatu ba nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla na mën a ak dikkam ci àddina a ah, daf ko taarix bu nekk dafa am lu ñu koy fàttalikoo booba baayam wala maamam abdul muttalib dafa tëdd géwént ñu ne ko nag a zam-zam mu ne ah zam-zam boo xam ne ca jamonoy Qusay ibnu Kilaab la woon ba mu faree léegi ëpp na juróomi téeméeri at di ma ko gasloo moo boobu teen fu ma koy gisee guddi gu jot danañ ko jox benn turu zam-zam zam-zam bëri nay tur lool yaaram ne bëri tur dafay tegtale tedd ak lañuy tudd bi loolu amee nag mu dogu fekk laaj na xamkat yi waxtu laajee ñu ne ko génneel sarax nangam génneel sarax nangam génneel sarax nangam mu di ko def saraxe na xar terewul ñu ne ko gasal zamzam mu saraxe nag ñu ne ko gasal zamzam mu saraxe géléem ñu ne ko gasal zamzam mu dogu nag ci seet sam sam pour gas ko ba mu demee nag di seet pind ba Quraysh ne waaw góor gi la lu muy def bés bu seet bu xëyee rek yor yor dana génn waaw nekk fii rek di kisaat kenn xamul lu muy seet mooy leen man de dañ ma digal ne naa gas sam-sam ñu àndandoo yom ñépp xàqataay ne góor gi dof na sam teen boo xam ne kenn xamatuti waxam ñu ne waaw moom lañ koy gasloo kii mbaaru dafa dof ah noonu mu jël pindam gis nga taarix toujours dafay répété waat boppam xaskanu zam-zam li ko waral mooy yonent yàlla ibrahima dafa amee woon soxnaam Sarata dund naa ak moom lu yàgg ñu ne juróom-ñaar fukki at ak juróom amuñu doom fekk mi nga amee jébéeram bu ñuy wax xaajara mu yëkkati ko may ko yoon ci Yàlla Ibrahim addiyal ko ko jigéen ñu baax ñi daanañ def noonu ah ba nga ko ko addiyalee mu ànd ak moom rek yàlla ci coobareem xaajara dal di ëmb Ismaïl ah, mu juddu di photocopie ci baayam loolu waral saara te itam biiram fiir mu ëmb daldi ëmb isaaqa comme ismail moo ko mag mbiri ñaari gone léeg ñu fo ci kër gi rek ismail a jooyloo ko ah mbaax ak jigéen nag ngeen baal ba léeg-léeg du sotti surtout ci wàllu piir mu ne ko xam nga luy dëggam gannaaw nag kii sama jaam rek la woon ma may la ko du ma nangu nag waxtu doom fooy ak sama doom rek jooyloo ko léegi xam nga nu ñuy def gannaaw man maa woon ci kër gi moom it wutal foo ko yóbbu mënatuma dëkk ak moom ibrahim daldi togg ajara ak ismail ci gëléem yóbbu leen ba ca safaa mu wàcce leen fa di dem ah xaajara na ko ibrahim fii nga ñëw àll bëgg a wàcce ci àllab kerte nag bii amul ndox amul dara ndax yàlla la ko sant mu ne yàlla ma ko sant mu ne ko bon nag booy boo dem yàlla du ñu baax mu dem àll ak saa rek Ismaayil mar bay ŋaa ak a ñeppi bëgg a dee ndax mar yàlla ne Jibril gis nga xale bële ca safaa di ma ŋaa ak a ñeppi ndax mar mooy maami yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne lépp lu ma bind moo tax ma bind ko su dee rek danaa la far ci diwaanu malaaka yi Jibril wàcc ak juróom benn téeméeri laaf ci saasi rek mu dal di dóor mbaggam ci suuf mu bënn teenu zam-zam ah ndox mi bari lool waaye balaa looloo xam Haajara boot na xale bi gis nga nag jigéen ak doomam bu jaaxlee su dawee yéeg ci doju safaa xool xampen ko xarfu ndax dana gis ku ko may ndox du gis dara mu wàcc daw marwa xool du gis kenn ku ko may mu wàcc ba muy juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon yooyu ba léegi ku dem màkka da nga daw juróom-ñaari yoon yooyu soxna soosu dawoon ca barke booba la jógee ba ndox ma bënnee nag picc yi ñooy wane ndox ñu naaw yaaram yi gis ne picc yi fu ñu jëm rek ñaare ndox nga fa ñu ñëw bañ ñëwee soxna si neen teen bi nag maa ko moom képp ku bëgg a naan da ngay joxe dara ñu commencé nag di fa wëgg si di ko joxe demuñ àll ak saa rek mu am ci jóor a burus loo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu la ko maye mooy topp ndigal kon na fonk topp ndigal ku raw rek ci nga rawee <coughs> bi loolu amee nag ah Ismaayil nekk fa ab diir ak yaayam yonte Yàlla Ibrahima ñëw wër si leen ba mu ñëwee fekk Ismaayil rëbb la woon dafay rëbbi ba mu demee mu ñëw nuyu jabar ji fekk mu soxna sa xaw a doy waar lool mu ne ko salaamaaleykum mu ne xëy maaleykum salaama ci mu ne ko an sa boroom kër mu ne ko ah sama boroom kër nu muy toogee gan ñi bu toogee lu am lu mu jox gan ñi waxtu nekk gan ñaa ngi ñëw wuti na lu mu jox gan ñi mu ne ko maa ngi dem bu sa borom kër ñëwee nga nuyul ma ko ne ko am na góor gu fi ñëwoon nuyu ne la mu ne jën wi ci sa buntu kër dafa dëgg nga sansé ko jën wu dëng baaxut ci buntu kër mu ñëw mu wax ko ko mu ne ko góor ga sama baay la mu ne baaxoo naa la fase fase naa la demal beneen yoon mu dellu si fekk fa safaanab ndaw soosa ba mu koy nuyu rek mu ne c ay kii ak niroog sama borom kër dara utalewu leen lu muy be jaaw bi ne ko waaw doo wàcc toqaar ko lee mu ñëw mu ne ko maa ngi dem su sa borom kër ñëwee nga nuyul ma ko ne ko jën wi ci buntu këram jub na lool te jën wu jub yombut na ko toppatoo a ah, mu ñëw mu wax ko ko mu reene ko kook sama baay la loolu mooy cosaanal zam-zam ba nga xamee ne nag xeex bi am na ca diggante juróomi wu na yi ak xamaaliqatu yi ca jamonoy xisa yim na kilaab ñu tasaaroo moom la ñuy yaaram dañ ci léeb ba léegi naan tasaa ñooñu tasaaroo nañ bu mel ni péncam saba yi bañ tasaaroo ee nag arab yi ñoom dem ñibbi Makka ca lañ waxaat Abdul Muttalib ne ko teen boobu na ko gas ba ko seetee nag ba gis pind ba ci xisa bu gaaw ba nu Quraysh ne ko kat doo ko gas léegi daal lenn rek lañu ñu nangu soo nangoo ñun ñëpp ñu bokk financement bi gas ko bokk ko waaye duñ la bàyyi nga gas ko yow kenn ñu ñu di la ci tudd ba pencam yàlla te duñu ci tudd mu ne bàyyi leen ma def li ma liñ ma sant ñu ne ko doo ko def ñu dem ci buxaaba yi nag ne ña ngay àttelu ji boobu ñoom noonu lañuy def bañ demee dem ba ci digg àll bi gis nga histoire ni ma la ko waxee dafay répété boppam mar daldi leen dog ñu mara mara mara mar bay bëgg a rey seen bopp ñu ne léegi ñun ñooy sangi màkka yi dee fii ci digg àll bi kenn duñu suul loolu dana ñaaw ci nettali léegi nañ fexe ku njëkk a dee ñu suul la ku njëkk a dee suul la ki mujj a dee ñu bañ ko suul moo gën gii rek la mu dee kenn suulu leen ñu daldi gas ay pax tëdd Abdul Muttalib ne leen man nag lii ngeen wax duma ci d'accord góor kay dafay dem ba dee dab ko mu dee xam ne mënut a ñàkk dee waaye gu pax gas pax tëdd di nekk dee loolu man xaw ma ko benn ñu dem ci fi ñu doon àtteloo ñu àtte ñu mënuñoo dem ñu wëññeeku ngeen bàyyi ma def li ma yàlla sant ñu ne góor gi wax na dëgg nañ dem bañ jógee war ni ñu ngay continuer moom ba muy dàq gileemam rek gëléem gi ba mu yëkkati tànkam rek dóor ci suuf rek yàlla bënal ko ndox mu neex mu naan nàndal gileemam oo leen ñoom ñëpp ñu naan nàndal seeni gileem ñu ne lii docteur ma duñ doon wax ngoog léeg nit am xel te du am tawfiq am ca ñoom borom yi xel yu wax ne xam ngeen luy dëgg ci may Abdul Muttalib ndox mu sedd mii ci àllab kerteneng bii moo ko may zam-zam dañuy guddal mbayam noor waaye suñu ñe boobu ñee ko bàyyi ko mu gasteenam teenam ñee ko bàyyi ko nag mu nisar nisaram ju ja wax ne su ma yàlla mayee fukki doom yu góor yépp dund ba ku ma teeti dara ma xeex ak yow danaa ci rey kenn jàmmoo ko yàlla yàlla may ko fukki doom yu góor xaaris mooy taaw ah bi doom yi demee ba yemb nag mu tëdd géwéntaat ñu ne ko ñu ngi lay fàttali sa nisër ja yaa waxoon ne soo amee fukki doom yu góor danga ci rey kenn jàmmoo yàlla mu xëy nettali ko ñu ne ko reyal sarax mu rey xar ñu ne ko bëgg nañ lu ëpp mu rey nag ñu ne ko bëgg nañ lu ëpp nag mu rey gëléem ñu ne ko bëgg nañ lu ëpp géléem yaa waxoon ne boo amee fukki doom yu góor yépp dund ba lu la yàlla tere ku ko bañ nga xeex ak moom danga rey kenn jaamoo yàlla ñu ne loolu lañu bëgg mu daldi dogu nag jiital xale yi dem ca seen yàlla ya usaaf ak naayilata booba ñoom am nañ ay bant yu ñu def ci kaaba gi moom la ñuy wax al azlam bindi ci minkum min xayrikum waaw ak seen yi fi caaxaan yooyu demal bul dem ci yéen la du ci yéen ku bëgg a tukki da ngay ñëw yëngal bant tukki su demal génnee nga ne yàlla yi ñu dema dem waaw buñ jiñantee dara ñu yëngal bant yi ku bant yow la dal rek bu yow sax ñu ne yow la mu ñëw nag ñu yëngal bant yooyu bant yi dal Abdoulaye mu ne ah bii moom dafa juum dellu yëngal bant bi dellu dal Abdoulaye mu dem laajte nu may def ñu ne ko kat bàyyi mu ne keroog rek la xuray Quraysh masa xalaat lu baax ci àddina Quraysh ne ko duñ nangu mukk nga kereel ñu aada ju bon ku fi amati fukki doom rey kenn loolu duñ ko nangu léegi daal soo mënee yow yaa fi ëpp géléem indil géléem yi teg xale bi soo wontelee def fukki géléem su bàyyee su yàlla gërëmee géléem yi nga jël bul dañ nag di dolli géléem yi ba ba muy bàyyi xale bi mu def noonu ba mu indee gëléem yi ràñsale leen wantale bant bi dal Abdoulaye mu dolli gëléem yi ba muy ñaar fukk bant bi dal Abdoulaye dañu di dolli gëléem yi ba muy téeméeri gëléem bant bi doola bàyyi Abdoulaye dal ci gëléem yi mu rey ko lépp nag def ko sarax ne Abdoulaye boyal dem Abdoulaye dem nag waaye te rafet ba mel ni weer waa am fukki fan ak ñaar noonu la Abdoulaye rafetewoon booba neeru ndubuwatu mi ngi ci moom ah te booba yahood yi jàng nañ ci seen téere yu njëkk yi tawreet ak linjiil ne yonent bi yàlla yónni ci mujj ak jamono génn na ak yahood léegi dafay génn ci yahood dafay dem ci weneen xeet ah booba yahood ak sanaan ñoo fi nekkoon léegi kanaa arab yi ñoo moome ñu ne nag pour yonent bañ leen a génn nañ def pexe ba nga xam ne yonent gi du leen génn yahood yi nag di galan Abdoulaye fu mu toll rek ñu di ko wax ne ñëwal ànd man benn yoon rek ma jox la téeméeri gëléem yi ñu la jote woon mu naan leen amal xaraamu fal mamaatu duunahu wal xilla laa xilla fastabiinuhu fa kayfa bil amri alladi tabtaxinahu yaxmil karimu irdahu wa diinahu naan leen def lu xaraam dee ko gën te sax yéen lii ngeen may sant ndax gor na ko def duma ko def mukk waaye mayuñ ko jàmm mujj gi mu ñëw ne baayam léegi yahud yi sonal nañ ma ak jigéen ñi fu ma toll rek ñu ngi naan ma kaay sëy ak man ma jox la fukki téeméeri gëléem te saytaane bari na doole léegi dama bëgg benn nga wutal ma jabar ñu may ma jàmm wala nga bàyyi ma may dox service ci kër gi waaye bul ma yónnee ci biti baayam dem nag ci xayu banu maxzum dal di koy takkal aminatu bintu waabin mu ànd ak moom ci guddi ñaar fukki fan ak juróom benn ci rajab ci la ànd ak moom sallallahu alayhi wa sallam lor ga leer ga toxu ci Abdoulaye dem ci Aminatu mu ne yëg naa ne man mii am na lu àndoon ak man mel na ni dafa dañ waaye muy nattu boppam gis nga jigéen ñoom ñu am fulla lañ léeg mu tase ca kenn ne ko waaw yow noo def ca la nga ma doon wax nga ne ko ganaar day jaral tooma ko mu gëléem jaral tooma dërëm laa wax demal ah, bi ko yaayam ëmbee ñaari weer ci la baayam génn àddina gannaaw bu mu amee bu mbir mi amee ci biiru yaayam ñaari weer ci la baayam génn dina yaayam ëmb na ko juróom-ñeenti weer nee na juróom-ñeenti weer yooyu day dara xamalu ma ci ne dama ëmb lu may rekk gisatuma sama baax waaye terewul ma wenn ñam duma ma yëg yaramu tàng du ma yëg dara loo xam ne jigéen wéri dana ko yëg ba ci weeramu mujj nag ba shayri nag di ko dikkal fu ne ah di ko bégal naan ko ñu ngi lay bégal yow yaa ëmb sanga woy jëkk ak wooy mujj yaa ëmb ki nga xam ne moom la yàlla di mujjalee yonent yi te mooy seen sang mu ne man da xaw ma ñi li ñu wax lan la ah di ko def di ko def ba ci guddi nga xam ne nag ci la yonent war a ñëw sallallahu alayhi wa sallam mu gis ay jigéen ñoo xam ne nee na ñi ngi gudd ba mel ni ah, datti tàndarma mel ni jigéen ñu bokk ci banu Abdu Manaaf ñu wax ak moom kenn ki ne ko man may Asiyatu bintu Mazahim jabari Firawna xam nga julli la woon kenn ki ne ko man maay Maryama nday Isa ñi ci des nag ay jigéeni xuru ni lañ ñi nga bàyyi ko aljanna dañoo ñëw teeru si la sa gan gi toog di waxtaan ak moom xanaa dañ ko doon pare réewle waaye fi ñuy waxtaan ak moom mu ne ma hittewoo jël dara ci néeg bi ba ma jógee taxaw rek ñu xotti wel ak nday yoram yonentu jaar ca wet ga rek ne cirib ci peelu sallallahu alayhi wa sallam ba mu ci fekk na doom buy juddu boppam lay juutal yonentu dafa cëppeelu ak ñaari tànkam fekk nañu ñu nandal ko tësngal ko gëttal ko wodd ko ba mu ba mu juddoo sallallahu alayhi wa sallam dafa sujoot sujoot bu yàgg siggi mel ni mag mu xam yàlla taalal ñaari loxoom teen ca ko ne allahumma rafiqal ala yow yàlla yàlla nga boole ca sette su kawe sa dal di dellu ci lal bi tëdd xam naa bu doon jigéen senegal ñu daw ci ko ne jur naa rab ah ba loolu amee nag sallallahu alayhi wa ah ñu nampal ko jànq jafa toogoon ku ko jox saween rek bu nampee mu am meew loolu karaama ko yàlla may la booba yaaram seen baax mooy boo amee doom dangay wut dangay ngay wut nampalkat fay ko mu nampalal la fekk nampalkat yi jóge ca xayu ba ñu saadin ñëw wut si ay nampal ba nu ñëwee kuñ gaaral yonent bi rek wan la leen ak jirim la nga ne ah jirim dey moom taxu ko am solo ndax boo ko nampalee dañ la fay waaye duñ la buuñaa te buuñaa baax na ci yëf yi xaaral ma seet keneen di ko def di ko def ba agsi ci amina ci xalimatu saadiya la ko def la ko may loolu mooy moom wajanu mbaam la waroon bàyyi ne bi ataan bi ataanin bati atin xamalatu ci wajanu mbaam woo xam ne dafa lap lompoñ ba munta ànd ak mbaam yi ndax lompoñam mu agsi ca tàkku tàkkusaani suuf ba mu ñëwee ñu wax ko ko mu ne ah waaw ànd ak say nawle ñépp yóbbu yow yóbbu li jiw di doy doy waar naa yóbbu kii rek yàlla mën na ma cee defal barke ñii seen njort gën a dëggu ci la bokk ba mu koy togg rek ba mu ko jëlee ba teg ko ci mbaam mi wajan wi suur ba mel ni waaw kuñ doon yefal dal di jóg ña jógoon ca suba gawar ya mu daal di leen jot sallallahu alayhi wa sallam te booba mi ngi ànd ak bi nga xam ne moo koy keral fu mu mën a jëm te mi ngi ànd xet ak aljanna goo xam ne kum jub rek gëtt gi moo lay njëkk ak jigéen ña di waxtaanee mbiram nag ne waaw xalimatu mi la ci suba gawaram gaa ngi làmpoñ ba mënta dem ci guddi gi léegi kenn mënu koo jot ñu ne xanaa gisu leen gëtt gi mahandat ñu ne xanaa gisu leen waaw xamaamatu bi nga xam ne moo koy niiral sallallahu alayhi wa sallam ba mu àggee ca gàddam ga mu ne fekk na ñi ngi amee génn giléem goo xam ne dafa làmpoon ba mënta dem wëtti ba muy agsi rek gëléem gi suur ba ana di waajalaat suuf ndax bari meew a ah, fépp fu juróom gi jublu ñax dafay nekk ak ndox ñu lekk ba suur tax na ñu bari dàq seeni sàmm ne leen xanaa mënu leen a dem fi sàmmi xalimatu yi dem sallallahu alayhi mu nekk fa nag yàlla def ci moom karaama li gone di màgg ci at moom lay màgg ci bés bi muy am ñaari at dal di fer lu waxambaane mi ñaar fukki fan man rek ñaar fukki at man mën na ko sallallahu alayhi wa sallam ah ñu daal koy delloo nag yaayam ndax loolu lañu waxante woon ne ko xale bi fer na waaye màkk dafa tàng te jéeri la te daal bëriwut soow ñu bëggoon ngeen jox ñu ñu delloo ko ba yaram yaramam gën a nay di wax di wax ba yaayam ne leen yéen daal yéen ma gën a bëgg sama doom di yóbbu leen ñu dem ak moom bañ demee ba am ñaari weer yonentu génn di sàmme ànd ak xale yi wax naa la ne ci ñaari atam lu waxambaane ñaar fukki at man mën na ko ba ñuy génn rek xale yi ñu ne ay till bërgal leen xale yi loolu lañu wax till lañ gis ndeke jibril la ak israfil ak israil ak mikail xale yi ñoom gis till daw yonentu nag sallallahu alayhi wa du daw mukk dara mun koo tiital ba mu daw wala mu lu ba mu changé ni mu daan doxee foo ko gis rek dafay daagu waaw buy nelaw boo bëggee gis muy nelaw gis ko muy nelaw boo bëggee gis mu yeewu gis ko mu yeewu sallallahu alayhi wa noonu la meloon ah bañ ko jàppee indi benn diiba benn mbàjj goo xam daal ñu lal ko tëral ko ci xotti dënam génne xolam raxas ko ba mu set feesal ko ak leer dégg nga daal di koy kaste delloo ko ci mu dem gone bañ ñëwee ne seen yaay ñun dey ay ci la ñu doon dàq suñ mbokkam ba nu xoree ma jàpp nañ ko yaayam ne mu ngoog bon lenaa nag daal di jóg ànd ak jëkkëram ñu di ko seet bañ demee ba ci gannaaw ñàgg yi rek ñu tase moom sallallahu alayhi wa sallam mi ngi temp ñu ne Muhammad lan la mu ne dara loo gis mu ne dara ba mu ñëwee tëdd daal di gëmmentu ñu tàngal meew jox ko mu naan daal di nelaw nelaw yooyu eewu ca ba ca ci yoor yor gis nga jigéen a gën a gaaw a jaaxle ci doomam ah jigéen ji ne jëkkëramu kii kat man jaaxle naa ci jigéen ñi ngeen baal ma gis nga fuñ ñu jaaxle rek danañ dem ci seet yi ñoom ñu dal dem ci ay seet ne ko dañoo bëggoon ngeen sànni ñu ci seetal ñu gone gi lu ko jot gis nga seetit xaw ma ko duñ ko wax mukk ba ñuy sànni rek ne leen bisimilah kii ji ne ko jàpp ah ba mu ko defee mu ne jëkkëram nu ñuy def mu ne ko nu ñuy def lu may delloo ko ndeyam balaa ñu ci toor a jàpp kay nañ ko delloo yaayam ñu ne toos tegaat ko ci gileem gi dem yët ko yaayam ne ko daal xale bi dañ koo indi woon ndax daal moom daf lay gelu <laughs> yaayam ree ne leen gelu koo xam kii xamul ma ba di ma gelu kii yéen la xam wax leen ma rekk lan la kii fi mu nekk maag yéen ñoo ci yem wax leen ma lu xew ñu ne ko wax dëgg dañoo ragal ne jinne daf koy bëgg a jàpp yaayam rey na leen sama doom ji jinne ko ragal waaye moom ragalul jinne waaye nag gannaaw noonu la jërë ngeen jëf mën ngeen ko bàyyi te dem ñu bàyyi ko mu nekk ak yaayam juróom benn at la am ak yaayam sallallahu alayhi wa sallam yaayam génn àddina wax na ne ci biir juróom benn at yooyu yaayam àndoon na ak moom dem ca kër na jaayam ya ca axwaala be ca banu na jaar ne ne foofu sax fa la jàngee feey sallallahu alayhi wa ca Yasriba kon mos naa dem bi dina jëkk gàddaay gi waaye booba xale bu tuuti la bés ba mu ko defee yaayam génn àddina maamam yor ko nag di ko yar Abdul Muttalib ànd ak moom ci genn gawar goo xam ne dañ doon jéggi ca Sham ah yow di jàng nañ ci seen téere yu njëkk yi ne yonent bi yàlla yooni ci mujj ak jamono juddu na te bés ni tey war naa génn war naa jaar fii añu yowut yépp gis nga yowut dañoo bon naka jekk amuñ dara lu may def lu may takkaay ngànnaay ne gannaaw génn na ci ak yowut daal léegi ñoom nañ ko seet rey ko ñu di ko tëru ba ñëwee ba ci benn bu xaaba bu ñuy wax Buxayra raahib Buxayra seen gawar ga ñu toog mu ne jàngoon naa ci téere yi ne garab gële gannaaw yonent yàlla Isaa ku fa toog rek ab yonent la kon nag ñële fa sippi ab yonentam ci seen biir ah mu yónnee invité leen defal leen ay taabal ñu ñëw ba ñëwee mu xool leen ne leen am na ku des de ñu ne ko ah déedéet mu ne li ma leen wax du dañ am na ku des ñu ne ah waaw wax na dëgg jirimab Abdallah jirimab Abdallah bi moo fa des ah Abdul Mutalib ne ko sama doom moo fa des xale bu tuuti mu ne ko na ñëw koo ko tax ma invité leen yonentu ñëw nag sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy gis rek tegtal yi mu jàngoon ci téere yépp gis na ko ci moom ba mu des benn mu ñaan baayam ne ko yow nag bu ñu añee ba pare dama am ak yow waxtaan biñ paree mu ànd ak moom ak yonent bi ci biir mu ne ko sa doom ji dafa am tegtal yu ma gis ci moom am benn bu des ma bëggoon nga may ma ma wag mbaggam ndax danaa ko mën a seet mu ne ko ah doom ji ñoo ko jur seetal ba mu koy wag rek dal di daanu xam ndax xaatimu nubuwa bi ci mbaggam yonent bi tàmpe bi yonent moom la gis mu daal di koy daanu xam ba mu ximili ko ne yonent ne xale ne ko yow loo bokk kii mu ne ko maa ko jur mu ne ko déedéet kii baayam dundut ak bari bëri xam-xam moom it kii baayam dundut yaayam sax dundut mu ko ah, man maamam laa mu ne ko gis nga kii du nitu ordinaire. Alfayda FM rajo bi ngeen doon xaar ngir matal sen yaakaar. aslul usuli mooy cosaanal cosaani wala njaan ak doom yi mu ne lam yazal mustadañ nuuruhu leeram ga gaay ni li ci wattuk borom sama bintiqaalin ci taxu ba dan tiqaalin ci gannaaw taxu alquran a nga koy wax naa wanu watu qallubaka fi saajidiin yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy bàyyi bàyyi mooy bàyyi doom yi mooy ki nga xam ne moom la yàlla bind moom la yàlla njëkk a bind ndax yàlla moo fi nekkoon ba fi dara nekkul ba mu bëggee lu ko wettali mu def tëjali ci boppam ba mu defee tëjël tëjali ci boppam loola feeñ ceg tëjali ba cële bind yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi gi dafa sori lool fokk ñu taxan xisa bi tëjali mooy lan nga ñëw taxaw ci kanam seetu jëmm jooja di feeñ ca biir seetu bi loola mooy te tëjëli jëmm jooja di feeñ day yow la waaye du yow soo demee mu dem soo waxee mu wax soo reyee sax dana rey ci biir seetu bi waaye danga xam ne boolaalee laalee da nga xam ne dara nekku fa kooku nag aarifiina yi ñoo ci ëpp dégg doomu aadama nekkut jàpp na ne nekk na waari fii ne dañoo wax ne bakkaar bi gën a rëy mooy jàpp gi nga jàpp ne ku yow ku nekk nga te nekkoo ndax yàlla rek moo nekk nekk ak yàlla googu lu nekk rek ca loola nga nekk soo demee ca majzuba fa muy sooboo ma ngay wax naan wa bi iqraari bi sarayaani qayumiyatika fi kulli cheyin wa adam ixtimaalu xuruj cheyin daqaaw jalla an ilmika wa qaarika xata lahdata sukuni maa ngi tudd sell ak borom bu màgg bi nga xam ne lu dal ci moom la dal lu yëngu ci moom la yëngu loolu mooy lan nit ku nekk tey lay yàlla ci moom su jógee ci moom rek médd ak deret moo fay des boo ne woon léegi diw na nga tudd dana laal loxoom fenn ne la man nga ne waaw mu ne la diw teg dënnam ci loxoom ne la man aadama aadamaa ngi tudd aadama caam waaye dëgg-dëgg foofu mu laal xam na beneen tur dënn la tudd bu ko toxalee mën naa laal jë su ko toxalee mën naa laal mbagg lu nekk am na tur waaye lay aadama caam ci boppam loola moom xamu ko te mënu koo xam loola nag mooy xaqiqatu zaati bi nga xam ne mooy jëmmi dund di dund ci doomu june nga xam ne moom moo ko tax a nekk loolu nag teggin maywut wax ko ci ci mbedd waaye daal yàlla bi mu defee ëtt jël lii ci yoon ci yàlla muhammad comme ni ngeen ko xamee Ah, jëmm jooja kerse daf ko jàpp ndax taari yàlla yu rafet ya mu gis gis nga doomu aadama ñaare bu amee kerse rek dana ñaq ñaq woowa ca la yàlla bind géej yi ci la bind ngelaw yi ci la bind suuf yi ci la bind asamaan ci la bind arasa kursi yu la bind mustawan moo tax mu ne kuntu fan bind bi nubuwati wa aadamu baynal maayi wa tini man nekkoon naa dib yonantu boo xam ne xam naa sama yonantu te booba day aadama ma ngay ban nekk ca waa ma ngay ma nga nekk di ban bu tooy yàlla bindagu ko loolu am na tegtal carañaan ma xal naa ñëw léegi incha allah bu ñu yàlla mayee ci guddi gi yonantu dafay dem ànd ak jibril ci rañaan mi romb nañ asamaan yi yépp ba jeexal asamaan yi waaw romb sidratul muntaha romb bayti maamur romb aras romb kursi yu jibril ne ko nag sang bi juróom-ñaar fukki péeng ci sama kanam yoo xam ne bu ma ci jege dana ma lakk ni cunkóor di lakkee ni safaray lakkee cunkóor foofu yaag sa borom rek yéen a fa xaj bàyyi mu ne foofa fala yonent bi delloo lépp luy géej ndox ci moom mu delloo ko géej yi lépp luy suuf ci moom mu delloo ko suuf lépp luy saxat ci moom mu delloo ko asamaan lépp loo xam ne waaw bokkut ca la bàyyeekoon ca jëmm ju tedd ja ba muy ñëw nekkaat dalam nekkoon rek ñu delloo ko fa mu nekkoon mu nekkaat la lam nekkoon loolu nag ba loolu amee jibril di wéttaleanteeg moom ndax aadama yettu daf ko doon bëgg a jot yoonu jibril di ko waxtaanal yonent ne ko aw yow jibril man ak yow ku mag mu ne ko ah sang bi man day mag laa lool ndax am na biddi woo xam ne daf daan feqee xaras di dem kursi su feqee balaa feqati na am juróom-ñaar fukki junne at biddiw boobu feq na ci sama kanam juróom-ñaar fukki junne yoon yonent ne ko waaye man maay biddiw ba kon moom moo ko mag kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag su fekkee dañuy wax ci ak aadami yatoom muhammad la tudd abdoulaye ko jur ak aminatu ma nga juddoo makka mi ngi bu taalib ci amul fiil la juddu gannaaw boo xamee ne xew xew xew abarata xam na ba am juróom fukki fan ñu ne ñeent fukki fan ak juróom ci la yonent yàlla muhammad juddu sallallahu alayhi wa bi mu juddu juddoom am na tegtal yu bari yoo xam ne xew na ci juddoom ndax booba fekk na faris ñi nga xamee ca kisra néeg boo xam ne tabax la boo xam ne junney nguukaan ñoo ci dëkk ak buur bi ba mu juddoo keroog tabax booba dafa toj fukki toj toj ak ñeent faris ñi ngi amewoon safara woo xam ne dañ koy jaamu junneyaat xam ne junne xambkat ak junne yu uppkat keroog ba yonent juddoo sallallahu alayhi wa sallam keroog la safara woo fay ba mel ni musuñ ko róom ñi ngi am ndox moo xam ne dafa yol ñu di ko jaamu ndox mooma keroog ba yonent juddoo sallallahu alayhi wa keroog la ñii mel ni dara nekkatu ba sallallahu keroog bi yonent juddoo képp kuy buur ci àddina salal dafa damm suñ ko sampee mu damaat mu damaat mu jigi lal yi wax ak ñoom ne leen tey benn buur rek ay fanaan ci ko mooy Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa bi mu juddoo nag dafa fekk baayam maamam Abu Talib ndax balaa moo juddu wala ñu dellu taarix tuuti gannaaw dellu taarix taatu ba nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla na mën a ak dikkam ci àddina a ah, daf ko taarix bu nekk dafa am lu ñu koy fàttalikoo booba baayam mboola maamam Abdul Muttalib dafa tëdd géwént ñu ne ko nag ah zam teen boo xam ne ca jamono yi Xusay ibnu Kilaab la woon ba mu faree léegi ëpp na juróomi téeméeri at ñu di ma ko gasloo moo boobu tenn fu ma koy gisee guddi gu jot danañ ko jox benn turu zam-zam zam-zam bëri nay tur lool yaaram ne bëri tur dafay tegtale tedd ak la ñuy tudd bi loolu amee nag mu dogu fekk laaj na xamkat yi waxtu laajee ñu ne ko génneel sarax nangam génneel sarax nangam génneel sarax nangam mu di ko def saraxe na xar terewul ñu ne ko gasal zamzam mu saraxe nag ñu ne ko gasal zamzam mu saraxe gëléem ñu ne ko gasal zamzam mu dogu nag ci seet samsam pour gas ko ba mu demee nag di seet pind ba Quraysh ne waaw góor gi la lu muy def bés bu seet bu xëyee rek yor yor dana génn waaw nekk fii rek di kisaat kenn xamul lu muy seet mooy leen man de dañ ma digal ne naa gas zamzam ñu àndandoo yom ñépp xaqataay ne góor gi dof na samsam teen boo xam ne kenn xamatuti waxam ñu ne waaw moom lañ koy gasloo kii mbaaru dafa dof ah noonu mu jël pindam gis nga taarix toujours dafay répété waat boppam xaskanu zam-zam li ko waral mooy yonent yàlla Ibrahima dafa amee woon dund naa moom lu yàgg ñu ne juróom-ñaar fukki at ak juróom amuñu doom fekk mi nga amee jébéeram bu ñuy wax Haajara mu yëkkati ko may ko ci yàlla Ibrahim addiyal ko ko jigéen ñu baax ñi daanañ def noonu ah ba mu ko ko addiyalee mu ànd ak moom rek yàlla ci coobareem Haajara dal di ëmb ah mu juddu di photocopie ci baayam saarata itam biiram fiir mu ëmb dal di ëmb Isaaqa Ismaayil moo ko mag mbiri ñaari gone léeg-léeg ñu focc kër gi rek Ismaayil a jooyloo ko ah mbaax ak jigéen nag ngeen baal ma léeg-léeg du sotti surtout ci wàllu piir mu ne ko xam nga luy dëggam gannaaw nag kii sama jaam rek la woon ma may la ko du ma nangu nag waxtu doom fooy ak sama doom rek jooyloo ko léegi xam nga nu ñuy def gannaaw man maa ne woon ci kër gi moom it wutal foo ko yóbbu mënatuma dëkk ak moom ibrahim dal di togg ajara ak ismail ci gëléem yóbbu leen ba ca safa mu wàcce leen fa di dem ah xaajara na ko Ibrahima fii nga ñëw àll bëgg a wàcce ci àllab kerte nag bii amul ndox amul dara ndax yàlla la ko sant mu ne yàlla ma ko sant mu ne ko bon nag booy boo dem yàlla duñu ñu baax mu dem àll ak saa rek Ismaayil mar bay nga ak a bëgg a dee ndax mar yàlla ne Jibril gis nga xale bële ca safaa di ma ŋaak a ngeppi ndax mar mooy maami yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne lépp lu ma bind moo tax ma bind ko su dee rek danaa la far ci diwaanu malaaka yi jibil wàcc ak juróom benn téeméeri laaf ci saasi rek mu dal di dóor mbaggam ci suuf mu bënn teenu zam-zam ah ndox mi bari lool waaye balaa looloo xam xaajara boot na xale bi gis nga nag jigéen ak doomam bu jaaxle su dawee yéeg ci doju safaa xool xampen ko xarfu ndax dana gis ku ko may ndox du gis dara mu wàcc daw marwa xool du gis kenn ko may mu wàcc ba muy juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon yooyu ba léegi ku dem màkka da nga daw juróom-ñaari yoon yooyu soxna soosu dawoon ca barke booba la jóge ba ndox ma bënnee nag picc yi ñooy wane ndox ñu naaw yaaram yi gis ne picc yi fu ñu jëm rek ñaare ndox nga fa ñu ñëw ba ñëwee soxna si neen teen bi nag maa ko moom képp ku bëgg naan da ngay joxe dara ñu commencé nag di fa wëgg si di ko joxe demuñ àll ak saa rek mu am ci jóor ab wurus loo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu la ko maye mooy topp ndigal kon nangeen fonk topp ndigal ku raw rek ci nga rawee <coughs> bi loolu amee nag ah Ismaayil nekk fa ab diir ak yaayam yonte Yàlla Ibrahima ñëw wër si leen ba mu ñëwee fekk Ismaayil rëbb la woon dafay rëbbi ba mu demee mu ñëw nuyu jabar ji fekk mu soxna sa xawa doy waar lool mu ne ko salaamaaleykum mu ne xëy maaleykum salaamati mu ne ko an sa boroom kër mu ne ko ah sama borom kër nu muy toogee gan ñi bu toogee lu am lu mu jox gan ñi waxtu nekk gan ñaa ngi ñëw wuti na lu mu jox gan ñi mu ne ko maa ngi dem bu sa boroom kër ñëwee nga nuyul ma ko ne ko am na góor gu fi ñëwoon nuyu na la. mu ne jënd wi ci sa buntu kër dafa dëgg nga sanse ko jën wu dëng baaxut ci buntu kër mu ñëw mu wax ko ko mu ne ko góor ga sama baay la mu ne baaxoo naa la fase fase naa la demal beneen yoon mu dellu si fekk fa safaanab ndaw soosa ba mu koy nuyu rek mu ne cay ay kii ak niroog sama borom kër dara utalewu leen lu may be jaaw bi ne ko waaw doo wàcc toqaar ko lee mu ñëw mu ne ko maa ngi dem su sa borom kër ñëwee nga nuyul ma ko ne ko jën wii ci buntu këram jub na lool te jën wu jub yombut na ko toppatoo a ah, mu ñëw mu wax ko ko mu reene ko kooku sama baay la loolu mooy cosaanal zam-zam ba nga xamee ne nag xeex bi am na ca diggante juróomi yu na yi ak xamaalixatu yi ca jamono xisa yi na kilaab ñu tasaaroo moom la ñuy yaaram dañ ci léeb ba léegi naan tasaa ñooñu tasaaroo nañ mel ni péncam saba yi bañ tasaarooyee nag arab yi ñoom dem ñibbi makka ca lañ waxaat abdul muttalib ne ko teen boobu na ko gas ba mu ko seetee nag ba gis pind ba ci xisa bu gaaw ba nu Quraysh ne ko kat doo ko gas léegi daal leen rek la ñu nangu soo nangoo ñun ñëpp ñu bokk financement bi gas ko bokk ko waaye duñ la bàyyi nga gas ko yow kenn ñu di ñu di la ci tudd ba pencam yàlla te duñu ci tudd mu ne bàyyi leen ma def li ma liñ ma sant ñu ne ko doo ko def ñu dem ci buxaaba yi nag ne ña ngay ji boobu ñoom noonu lañuy def bañ demee dem ba ci digg àll bi gis nga histoire ni ma la ko waxee dafay répété boppam mar daldi leen dog ñu mara mara mara mar bay bëgg a seen bopp ñu ne léegi ñun ñooy sangi màkka yi dee fii ci digg àll bi kenn duñu suul loolu dana ñaaw ci nettali léegi nañ fexe ku njëkk a dee ñu suul la ku njëkk a dee ñu suul la ki mujj a dee ñu bañ ko suul moo gën gi rek la mu dee kenn suulu leen ñu daal di gas ay pax tëdd Abdul Muttalib ne leen man nag lii ngeen wax duma ci d'accord góor kay dafay dem ba dee dab ko mu dee xam ne mënut a ñàkk a dee waaye dugg pax gas pax tëdd di nekk dee loolu man xaw ko benn ñu dem ci fi ñu doon àtteloo ñu àtte ñu mënuñoo dem ñu wàññeeku ngeen bàyyi ma def li ma yàlla sant ñu ne góor gi wax na dëgg nañ dem bañ jógee war ni ñu ngay continuer moom ba muy dàq gileemam rek gëléem gi ba mu yëkkati tànkam rek dóor ci suuf rek yàlla bënnal ko ndox mu neex mu naan nàndal gileemam oo leen ñoom ñëpp ñu naan nàndal seeni gileem ñu ne lii docteur ma duñ doon wax angoog léeg nit am xel te du am tawfiq am ca ñoom borom yi xel yu wax ne xam ngeen luy dëgg ci may Abdul Muttalib ndox mu sedd mii ci àllab kerteneng bi moo ko may zam-zam dañuy guddal mbayam noor waaye su ñee ba waññee ko bàyyi ko mu gas teenam ñu waññee ko bàyyi ko nag mu nisër nisëram ju rëy ja wax ne su ma yàlla mayee fukki doom yu góor yépp dund ba ku ma teeti dara ma xeex ak yow danaa ci kenn jàmmoo ko yàlla yàlla may ko fukki doom yu góor xaaris mooy taaw a ah, bi doom yi demee ba yemb nag mu tëdd géwéntaat ñu ne ko ñu ngi lay fàttali sa nisar ja yaa waxoo ne soo amee fukki doom yu góor danga ci rey kenn jaamoo yàlla mu xëy nettali ko ñu ne ko reyal sarax mu rey xar ñu ne ko bëgg nañ lu ëpp xar mu rey nag ñu ne ko bëgg nañ lu ëpp nag mu rey géléem ñu ne ko bëgg nañ lu ëpp géléem yaa waxoon ne boo amee fukki doom yu góor yépp dund balul yàlla tere ku ko bañ nga xeex ak moom da nga rey kenn jaamoo yàlla ñu ne loolu lañ bëgg mu daldi di dogu nag jiital xale yi dem ca seen yàlla ya usaaf ak naayilata booba ñoom am nañ ay bant yu ñu def ci kaaba gi moom lañuy wax al azlam bindi ci minkum min xayrikum waaw ak seen yi fi caaxaan yooyu demal bul dem ci yéen la du ci yéen ku bëgg a tukki da ngay ñëw yëngal bant tukki yi su demal génnee nga ne yàlla yi ñu ne ma dem waaw buñ jiñantee dara ñu yëngal bant yi ku bant yow la dal rek bu dul yow sax ñu ne yow la mu ñëw nag ñu yëngal bant yooyu bant yi dal Abdoulaye mu ne ah moom dafa juum dellu yëngal bant bi dellu dal Abdoulaye dem laajte ne ko kat bàyyi mu ne keroog rek la Quraysh masa xalaat lu baax ci àddina Quraysh ne ko duñ nangu mukk nga créel ñu aada ju bon ku fi amati fukki doom rey kenn loolu duñ ko léegi daal soo mënee yow yaa fi ëpp gëléem indil gëléem yi teg xale bi soo wontelee def fukki gëléem su bàyyee gëléem yi nga jël dolli gëléem yi ba ba muy bàyyi xale bi mu def noonu ba indee gëléem yi ràñsale leen won Abdoulaye bant bi daal Abdoulaye dañu di dolli gëléem yi ba muy téeméeri gëléem bant bi doola bàyyi Abdoulaye dal ci gëléem yi mu rey ko lépp nag def ko sarax ne Abdoulaye boyal dem waaye mi ngi rafet mel ni weer waa am fukki fan ak ñaar noonu la Abdoulaye rafetee woon booba neeru ndubuwatu mi ngi ci moom ah te booba yahood yi jàng nañ ci seen téere yu njëkk yi tawreet ak linjiil ne yonent bi yàlla yónni ci mujj ak jamono génn na ay léegi dafay génn ci yowat dafay dem ci weneen xeet ah booba yowat ak nasaraan ñoo fi nekkoon léegi kanaa arab yi ñoo moome ñu ne nag pour yonent bañ leen génn nañ def pexe ba xam ne yonent gi du leen génn yowat yi nag di galan Abdoulaye fu mu toll rek ñu di ko wax ne ñëwal ànd ak man benn yoon rek ma jox la téeméeri gëléem yi ñu la jote woon mu naan leen amal xaraamu fal mamaatu duunahu wal xilla laa xilla fastabinuhu fa kayfa bil amri alladi tabtaxinahu yaxmil karim wa irdahu wa diinahu naan leen def lu xaraam dee ko gën te sax yéen lii ngeen may sant ndax gor na ko def duma ko def mukk waaye mayuñ ko jàmm mujj gi mu ñëw ne bàyyam léegi yowoot yi sonal nañ ma ak jigéen ñi fu ma toll rek ñi ngi naan ma kaay sëy ak man ma jox la fukki téeméeri gëléem te seytaane bari na doole léegi damaa bëgg benn nga utal ma jabar ñu may ma jàmm walla nga bàyyi ma may dox service ci kër gi waaye bul ma yónnee ci biti bàyyam dem nag ci xayu banu maxzum dal di koy takkal aminatu bintu waabin mu ànd ak moom ci guddi ñaar fukki fan ak juróom benn ci rajab ci la ànd ak moom sallallahu alayhi wa sallam leer ga toxu ci abdullahi dem ci aminatu mu ne yëg naa ne man mii am na lu àndoon ak man mel na ni dafa dañ waaye muy nattu boppam gis nga jigéen ñoom ñu am fulla lañ léeg mu tase ca kenn ne ko yow noo def ca la nga doon wax nga ne ko ganaar day jaral tooma ko mu gëléem jaral tooma dërëm laa wax demal ah bi ko yaayam ëmbee ñaari weer ci la baayam génn àddina gannaaw bu mu amee bu mbéy mi amee ci biiru yaayam ñaari weer ci la baayam génn àddina yaayam ëmb na ko juróom-ñeenti weer nee na juróom-ñeenti weer yooyu day dara xamalu ma ci ne dama ëmb lu may rekk gisatuma sama baax waaye terewul ma wenn ñam du ma yëg yaramu tàng du ma yëg dara loo xam ne jigéen wérit dana ko yëg ba ci weeramu mujj nag béchayir yi nag di ko dikkal fu ne ah di ko bégal naan ko ñu ngi lay bégal yow yaa sang sanga wooy njëkk ak wooy mujj yaa am ki nga xam ne moom la yàlla di mujjalee yonent yi te mooy seen sang mu ne man dafa ma ñi li ñu wax lan la ah di ko def di ko def ba ci guddi nga xam ne nag ci la yonent war a ñëw sallallahu alayhi wa sallam mu gis ay jigéen ñoo xam ne nee na ñi ngi gudd ba mel ni ah, datti tàndarma mel ni jigéen ñu bokk ci banu Abdu Manaaf ñu wax ak moom kenn ki ne ko man maay Asiyatu bintu Mazaahim jabari Firawna xam nga julli la woon kenn ki ne ko man maay Maryama nday Isa ñi ci des nag ay jigéeni xuru ay ni lañu ñi nga bàyyi ko aljanna dañoo ñëw teeru si la sa gan gi toog di waxtaan ak moom xanaa dañ ko doon pare réewle waaye fi ñuy waxtaan ak moom mu ne ma hittewoo jël dara ci néeg bi ba ma jógee taxaw rek ñu xotti wel ak ndeyjooram yonentu jaar ca wet ga rek ne cirib ci peelu sallallahu alayhi wa sallam bam ci fekk na doom buy juddu boppam lay juutal yonentu dafa cëppeelu ak ñaari tànkam fekk na ñu nandal ko tësngal ko gëttal ko wodd ko ba mu ba mu juddoo sallallahu alayhi wa sallam dafa sujoot sujoot bu yàgg si gi mel ni mag mu xam yàlla taalal ñaari loxoom teen ca ko ne allahumma rafiqal ala yow yàlla yàlla na ma boole ca sette su kowe sa dal di dellu ci lal bi tëdd xam naa bu doon jigéen senegal ñu daw ci ko ne jur naa rab ah ba loolu amee nag sallallahu alayhi wa ah ñu nampal ko jànq jafa toogoon ku ko jox saween rek bu nampee mu am meew loolu karaama gu ko yàlla may la booba yaaram seen baax mooy boo amee doom dangay ngay wut da wut nampalkat fay ko mu nampalal la fekk nampalkat yi jógee ca xayu ba ñu saadin ñëw wut si ay nampal ba nu ñëwee kuñ gaaral yonent bi rek wan la ne nag jirim la nga ne ah jirim day moom taxu ko am solo ndax boo ko nampalee dañ la fay waaye duñ la buuñaa te buuñaa baax na ci yi xaaral ma seet keneen di ko def di ko def ba agsi ci amina ci xalimatu saadiya la ko def la ko may loolu mooy moom wajanu mbaam la waroon bàyyi ne bi ataan bi ataanin bati atin xamalatu ci mbojanu mbaam boo xam ne dafa lab lompoñ ba munta ànd ak mbaam yi ndax lompoñam mu agsi ca tàkkusaani suuf ba mu ñëwee ñu wax ko ko mu ne ah waaw ak say nawle ñëpp yóbbu yow yóbbu di li di doy doy waar naa yóbbu kii rek yàlla mën na ma cee defal barke ñii seen njort gën a dëggu ci la bokk ba mu koy togg rek ba mu ko jëlee ba teg ko ci mbaam mi wajan wi suur ba mel nii waaw kuñ doon yafal dal di jóg ña jógoon ca suba gawar ya mu daal di leen jot sallallahu alayhi wa te booba mi ngi ànd ak bi nga xam ne moo koy keral fu mu mën a jëm te mi ngi ànd ak xet ak aljanna goo xam ne kum jub rek gëtt gi moo lay njëkk ak jigéen ña di waxtaanee mbiram nag ne waaw xalimatu mi lay ci suba gawaram gaa ngi lompoñ ba mënta dem ci guddi gi léegi kenn mënu koo jot ñu ne xanaa gisu leen gëtt gi mahandat ñu ne xanaa gisu leen waaw xamaamatu bi nga xam ne moo koy niiral sallallahu alayhi wa sallam ba mu àggee ca gàddam ga mu ne fekk na ñi ngi amee génn géléem goo xam ne dafa làmpoon ba mënta dem wëtti ba muy agsi rek géléem gi suur ba anaa tamit di waajalaat suuf ndax bari meew ah fépp fu juróom gi jublu ñax dafay nekk ak ndox ñu lekk ba suur tax na ñu bari dàq seeni sàmm ne leen xanaa mënu leen dem fi sàmmi xalimatu yi dem sallallahu alayhi mu nekk fa nag yàlla def ci moom karaama li gone di màgg ci at moom lay màgg ci bés bi muy am ñaari at dal di fer lu waxambaane mi ñaar fukki fan man rek ñaar fukki at man mën na ko sallallahu alayhi wa ah ñu daal di koy delloo nag yaayam ndax loolu lañu waxante woon ne ko xale bi fer na waaye màkk dafa tàng te jéeri la te daal bëriwut soow ñu bëggoon ngeen jox ñu ñu delloo ko ba yaramam gën a nay di wax di wax ba yaayam ne leen yéen daal yéen a ma gën a bëgg sama doom ji yóbbu leen ñu dem ak moom bañ demee ba am ñaari weer yonentu génn di sàmme ànd ak xale yi wax naa la ne ci ñaari atam lu waxambaane ñaar fukki at man mën na ko ba ñuy génn rek xale yi ñu ne ay till bërgal leen xale yi loolu lañu wax till lañ gis ndeke jibril la ak israfil ak israil ak mikail xale ya ñoom gis till ya daw yonentu nag sallallahu alayhi wa du daw mukk dara mun koo tiital ba mu daw walla mu raglu ba mu changé ni mu daan doxee foo ko gis rek dafay daagu waaw buy nelaw it boo bëggee gis muy nelaw gis ko muy nelaw boo bëggee gis mu yeewu gis ko mu yeewu sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon a ah, bañ ko jàppee indi benn diibaaj benn mbàjj goo xam ne ñu ngi ko jëlee ci aljanna walla fa yàlla soob daal ñu lal ko tëral ko ci xotti dënnam génne xolam raxas ko ba mu set feesal ko ak leer dégg nga daal di koy kaste delloo ko ci mu dem gone bañ ñëwee ne seen yaay ñun dey ay ci la ñu doon dàq suñ mbokkam banu Quraysh ma jàpp nañ ko yaayam ne mu ngoog bon le naa nag daal di jóg ànd ak jëkkëram ñu di ko seet bañ demee ba ci gannaaw ñàgg yi rek ñu tase moom sallallahu alayhi wa sallam mi ngi temp ñu ne Muhammad lan la mu ne dara loo gis mu ne dara ba mu ñëwee tëdd tuuti rek mu daal di gëmmentu ñu tàngal meew jox ko mu naan daal di nelaw nelaw yooye eewu ca ba ca ëllëg ci yoor yor gis nga jigéen a gën a gaaw a jaaxle ci doomam ah jigéen ji ne jëkkëram kii kat man jaaxle naa ci jigéen ñi ngeen baal ma gis nga fuñ jaaxle rek danañ dem ci seet yi ñoom ñu daal dem ci ay seet ne ko dañoo bëggoon ngeen sànnil ñu ci seetal ñu gone gi li lu ko jot gis nga seetit xaw ma ko duñ ko wax mukk ba ñuy sànni rek ne leen bismillah kii jinne ko jàpp <laughs> ah ba ko defee mu ne jëkkëram nu ñuy def mu ne ko nu ñuy def lu mooy delloo ko ndeyam balaa ñu cee toor a jàpp kay nañ ko delloo yaayam ñu ne toos tegaat ko ci gëléem gi dem yët ko yaayam ne ko daal xale bi dañ koo indi woon ndax daal moom daf lay gelu <laughs> yaayam ree ne leen gelu koo xam kii xamul ma ba ma gelu kii yéen la xam wax leen ma rek lan la kii fi mu nekk maag yéen ñoo ci yem wax leen ma lu xew ñu ne ko wax dëgg dañoo ragal ne jinne daf koy bëgg a jàpp yaayam rey na leen sama doom ji jinne ko ragal waaye moom ragalul jinne waaye nag gannaaw noonu la jërë ngeen jëf mën ngeen ko bàyyi te dem ñu bàyyi ko mu nekk ak yaayam juróom benn at la am ak yaayam sallallahu alayhi wa sallam yaayam génn àddina wax na ne ci biir juróom benn at yooyu yaayam àndoon na ak moom dem ca kër na jaayam ya ca axwaala be ca banu na jaar ne foofu sax fa la jàngee feey sallallahu ca Yesriba kon mos naa dem bi dina jëkk gàddaay gi waaye booba xale bu tuuti la bés ba mu ko defee yaayam génn àddina maamam yor ko nag di ko yar Abdul Muttalib ànd ak moom ci genn gawar goo xam ne dañ doon jéggi ca Sham ah yow di jàng nañ ci seen njëkk yi ne yonent bi yàlla yooni ci mujj ak jamono juddu na te bés ni tey war naa génn war naa jaar fii añu yowut yépp gis nga yowut dañoo bon naka jekk amuñ dara lu may def lu may takkaay ngànnaay ne gannaaw génn na ci ak yowut daal léegi ñoom nañ ko seet rey ko ñu di ko tëru ba ñëwee ba ci benn bu xaaba bu ñuy wax bu xayraa raahib bu xayraa seen gawar ga ñu toog mu ne jàngoon naa ci téere yi ne garab gële gannaaw yonent yàlla Isaa ku fa toog rek ab yonent la kon nag ñële fa sippi ab yonent ak ci seen biir ah mu yónnee invité leen defal leen ay taabal ñu ñëw ba ñëwee mu xool leen ne leen am na ku des de ñu ne ko ah déedéet mu ne li ma leen wax du dañ am na ku des ñu ne ah waaw wax na dëgg jirimab Abdalaay jirimab Abdalaay bi moo fa des ah Abdul Mutalib ne ko sama doom moo fa des xale bu tuuti mu ne ko na ñëw koo ko tax ma invité leen yonentu ñëw nag sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy gis rek tegtal yi mu jàngoon ci téere yépp gis na ko ci moom ba mu des benn mu ñaan baayam ne ko yow nag bu añee ba pare dama am ak yow waxtaan biñ pare mu ànd ak moom ak yonent bi ci biir mu ne ko sa doom ji dafa am tegtal yu ma gis ci moom am benn bu des ma bëggoon nga may ma ma wag mbaggam ndax danaa ko mën a seet mu ne ko ah doom ji ñoo ko jur seetal ba mu koy wag rek dal di daanu xam ndax xaatumu nubuwa bi ci mbaggam yonent bi tàmpe bi yonent bi moom la gis mu daal di koy daanu xam ba mu ximili ko ne yonent ne xale ne ko yow loo bokk kii mu ne ko maa ko jur mu ne ko déedéet kii baayam dundut ak a bëri xam-xam moom it kii bàyyam dundut yaayam sax dundut mu ne ko man maamam laa mu ne ko gis nga kii duut nitu ordinaire waññeeku ay kaalimatin nomadal barqu fi zamaya min وما لعينيك إن قلت ففاهمتا وما لقلبك إن قلت استفقيه لا يصلي وسلم دائما أبدا أيحسب الصب أن الحب منكتم وبين منسجم منه ومقترب لولا لم ترق دما على طلل ولا عرقت إليك البعي والعالمين كيف تنكر حبا بعدما شهدت بي عليك وجود جميع السقم وأثبت الوجه خط عبرة وضلا مثل الباري على خديك والعالمين نعم سرى الطيف منا فارقني والحب يعترض لذاتي من يلمي يا لائمي في الأول ذي معذرة إليك ولو أنصفت لم تلومي عدتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسب محقا النصح لكن لست اسمعه ان الاحب عن العذال بالصهم اني تهمت نصيح شيء في عدل شيء افعل في نص عن التهم لا سيد وسلم دائما ابدا فإن أمرتي بسوء ما تعذر من جريا بنذير الشيب والحرم ولا عدت من الفعل الجميل خرادة فنعم برأسه غير مختشم لو كنت أعلم أني ما أوقره فتنبصر بدا لمن وبالكريم ولا يسلم وسلم دائما من يدرد جماع من روايتها كما يرد جماع الخيل في اللجم لا يصلي وسلم دائما ابدا على نبيك الخير خلق كلهم ولا تم بالمعاصي كثرة كثر شهوتها إن طعم يقوي شهوة النجم لا يصلي وسلم دائما ابدا والنفس كالطفل إن تؤمن شبعها وبرجعها وإن تفتم يرفتها ولا يسلم وسلم دائما أبدا فاصرفها وعلي أن توليون لما تولى يسمع ويسمع ولا يسلم وسلم دائما أبدا ورايا ويل في الأعمال سائمة وإن افتعلت المرأة فلا تسمع ولا يسلم وسلم دائما أبدا كم حصل لذة للمرء قاتلة حيث لم يروي أمة وإلسان شر سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم ولا يسل رسل دائما واستغرق الدمع من عين قيم تلات من المعايب والزم حمية الندم ولا يسل رسل دائما وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإما فدعاك نصحب التهيمين على العالم والتزم دائما أبدا لا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا ذي عقمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا يسلم وسلم دائما أبدا ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فردي ولا أسمي ولا يسلم وسلم دائما أبدا فرمت السنة من أمر وضع إلى أن اشتكت قدمها شاء ما شاء وطاعة طياتك شمت رب القدمين وسلم دائما أبدا وراودة الجبال شم من ذهب عن نفسه كارها أيام الشمس أنا أسلم وسلم دائما أبدا وأكدت جودهم فيها ضرورته ضرورة لا تعدو على سبيل أنا أسلم وسلم دائما أبدا كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة منوى ولم تخرج من الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا لا غير الله فلا أحد أبر بالقول لا من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا لو لمقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحال غير منقسمين فقد نبينا في خلق وفي خلق وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورسا من واقفوا لدي عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفى وحبيبا بارئ النسمين يجزى عن شريك في محاسنه فجواب الحسن فيه خير محتسب لما دعت النصارى في نبيهم وقل بما شئت ما فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من إعظام إن فضل رسول الله ليس له أحد فيعرض عنه ناطق بفمه مناسبت قدره آيات ويزم ما يسمع منها يدعى دار سره وامتحنا بما تعين قول به ثم علينا فلهم تعالى من كشمس طوال من العينين من بعد صغيرة وتكل طرف من همه كفورك في الدنيا حقيقة وقال يوم تسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل عين تعبس الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في بخلق النبي زعل وخلق بالحسن مشتمل في شر التسميم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبعر في كرم والدار في كأنه هو فرد من جلالته في أسكن حين تلقاه في حشمه كأنما عليه المكروه في صدف من معدن منطق منه مكتسبه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 العزيز كالخير صدق وصرمي أبعد الوجوهات منصري يطلع مبتدئ منه مقتتمي يا عزة وسعيد دائما أبدا على حبيب الخير قد ومن تفرز فيه الفرس أنه قد انذروا بعلو الباس في النقم يا عزة كشمل أصحاب إسرائيل ملتئمين وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبنا غير خليل والنار حاملة الأنفاس من أسف عليه والنار ساعي العين من سدمه وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبنا غير خليل وسار سارة الأرض بحيرتها والدوائدها بغير حين ظمين كان في النار ما في الماء من درج حسن وفي الماء ما في النار من طعم والجن تاتب والانهار ساتئة والحق يار من معنى ومن كلمه لم يقمه وبعد ما عينوا في الأفق من شهب من قدرة وفق ما في الأرض من صنمه اتخذ عن طريق الرحيم نازم من الشياطين يقول إذ رب نازمين وما يصلي وسلم دائما أبدا كانوا هرب أبطال عبرات وأذكر بلا سام راتي رومي ما يصلي وسلم دائما أبدا نبذا به بعد تسبيح ببطني مع نبذ الصبح من نشاء منقطع لا يصلي وسلم دائما أبدا لا يصلي وسلم دائما أبدا عليك خير الخلق كلهم لا يصلي وسلم دائما أبدا جاءت بدعوته إلى الأشجار ساجدة تمشي إليها على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا مما كتبته ومن بديع الخط باللقم كالغرامة أنها سائلة تقي حر وتيس لهذه الحميد أقسمت بالقمر المنشقين له من قلبي نسبة مغرورة القسم وما عرب وما حول قال من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عن وهمه الصدق في الغار والصديق لم ير معه وهم يقولون ما بالغار من عدمه وما الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسي ولم تغني وقاية الله أعناك عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الوطم ما سامني الدار دائما وسيرت به إلا وأنت جوار منه لم يرمي وتمسك العادين من يدي إذا استلمت الندى من خير المستربين لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال مختلف ولا يصلي وسلم دائما تبارك الله ما رحم بمنتهين ولا نبي على غير المنتهين كوسا كورا وصبا بالابسراعة واتخذ إربا من نفقة اللبن وحية السنة الشبع دعوته أتى تدغرة في العصر الدعمي لعيب جاد أو خبت البطاحة بها سيل من اليم أو سيل من العربي لم يوصفها آيات نورها دون قراءة والدل يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتصم فما تطاول أعمال المجيء إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق منها رحمن محدثة قديمة صفة الوصول به القدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الماضي وعن عاد وعن إرمي دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبي إذ جاءت ولم تدمير محكمات فما تبقين من شبه لشقاق وما تغنين من حكم ما قلبت قط إلا هذا من خلب هذا العادي يا مطي السلمين وقد بلغتها دار ما يدعى لا معنى كموج البحر في مدد فوق جوهره في الحسن والكريم كما تعد ولا تحصى جائبها ولا تسمى على الإكسار بالسامين قرت بها عين قارئة فقلت له لقد ظهرت بحمد الله فاعتصمي إني خيفة من حالنا لضاعت وما ضاعت كأنه الحول تبيض الوجوه به من وسعته وقد جاءوا كالمحمومين وكالصراط وكالميزان ما عدلت من فوقك من غيرها في الناس لا يقوم لا تعجبن حسود يا ينكرها تجاوزا وعين خالق بأبيه قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمه يا خير من يمن له ساعته سعيه قوت أيوة ومن ولاية الكرى لمعتبر ومن هو نعمة الرحمن لمغتنمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبك ترقى إلى أنجلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم معزوم مخدوم على خدمه كنت تخترق التراث العقديم فما في موكب كنت فيه صاحب العالمين تاين لست كل فخار غير مشتاك وفد كل مقام غير مستحيل وجل وقار ما وليت من رتب وإذا إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير مهزمين لما دعا الله دعينا لطاعته بأكثر الرسل كنا أكرم المؤمنين رأت قلوب الإداء أنباء بعثته كنجم أجفلت غفلا من الرحمين راى قلوب الإداء أنباء راى قلوب الإداء أنباء بئستي كنبت أجفلت غفلا من الغنم ما كان يقام في كل معترك متى كان الغنى لحما لحمها ودمي وكن فكانوا يعبثون به إحدى شرت مع إخوانه في الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من كأنما جئت ضيفا حل ساعة بكل خرم من الحمار أقنع خرمي كأنما جئت ضيفا حل ساعة بكل قرن إلى لحم العدا قرني يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي به والجبال كثلا صادم مدى يلقاه بكل مستدام هم الجبال كثلا مصادمهم ما نرى منهم في كل مستدام وصل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول خطف له مدى من الرحمين المستيب بيد حمل بعدما ولدت نعيدا كل مسود من الجميل والكاتبين بسم الخط ما تركت أقلامهم عارف جسم غير منعجمين شاكي سلاحي لهم فيما تميزهم والذي يمتاز به سيما من السلب تجي إليك رياح نظر نشره فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين تجي إليك رياح نصر نشره فتحسب الزهر في الأكمام كل كبير كأنهم في دور الخيل نبتربا من شدة الحزم لا من شدة القسم طرقوا لدام باو بعثتي كنفذ أجلى طرقوا لدام بثيم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله أسرته إن تقع الرسل فيها جامعة جميل ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم حل أمته في عز ملته كالذي ما لا شعر به اللهم توفي أرض ملتي كالتي حل مع الأشرار جميع كم جدلت كلمات الله من جدل وكرما كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم ختم القرآن من خصمه كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتمية خدمته بمديح أستقل به نظام مضى في الشعر والخدم القلب ثاني ما تخشى عاقبه كأني بما هج من النعم حتى تغير حتى تغير حتى تغير سباعة في الحالتين وما حسبت إلا على الآثام والندمين وأثارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين به دنيا ولا تسوير ومن يبيع آجلا منه بآجله يبل والغبن في بينه سلبي يعتدا من فما عادي بمنتقد من النبي ولا حبي منصرب فإن لي ذمة منه بتسميته محمدا ورؤوف الخلق بذمه إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مكارمه ويرجو جار منه غير محترم ومنذ أن تمت أفكاري مدايحه للطول خلاص غير ملتزم الدنيا التي اقتصفت يد زهير بما أثنى على أهرمي يا أكرم الخلق مالي من ألوه به سواك عند غلو الحارس العممي ولم يضيق رسول الله جاءك به كريم تحلى بجود دقيق فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ونسوا لا تقنطيه من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كاللوح لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب اليسيان في القسم يا رب وجل رجائي غير منعكس لديك وجل حسابي غير منخرب قد عبدك في الدارين إن له صبرا متى تلوه لو علي العزمي وذل صوب صلاة منك دائمة على نبي بمنهل ومنسجم على وسلم دائما أبدا معرفة أربعة البدر حسبا واترب العيسى قاد العيسى بالنعم ثم رضى عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والله والصحب ثم التابعين فهم والتقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لله كل المسلمين بما يتلو في المسجد الاقصى وبالحرم جاء عن بيته في طيبة هرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم ربيعتها قد أتت ستين مع مئة فربيا كربلاء واسع الكرم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 يتوقع تبتتنا معنية فرجا كربنا يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما في الحق الحق والهادي إلى صراط الفدا اف ام rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen